ñu bëgg waxtaane li nga xam ne tey mooy mbirum góor jigéen di loo xam ne nit waru koo def wala di ko nekk waaye xar yi ak bëy yi bàyyi ma yi sax amut góor jigéen mosu a gis xar bu góor buy sëy xar bu góor nag wu góor wuy sëy nag wu góor so ngeen ko gisee mu di ko saat mu di ko pas rek parce que dafa ràññeewul ne kii nag bu góor la wala xar bu góor la ndax ñum xel mi nit am pour man koo ràññee waaye nag bu góor nagu jigéen lay sëy fasu góor fasu jigéen lay sëy mbaam bu góor mbaam bu jigéen lay sëy parce que loolu la yàlla dogal loolu mooy nature nit mooy nature lépp luy dund mooy nature nit di nature garab di nature bàyyima yi garab yi sax garab yi garab yi garab yi garab yi bu ñuy jur doom garabu mango buy am doom garabu mango màngo bi balaa nekk doomu mango day nekk fleur fleur boobu bu ñu koy bu ñu koy bu amee pétale ba am polen pollen rabi àll yi ñoo koy polliniser ñooy jël li nga xam ne mooy mani yu góor bi def ko ci mani yu jigéen bi pour que mu mën a jur mango loolu scientifique yépp xam nañ ko garab yi sax góor ak jigéen ñooy sëyante comme garab yi ñoo dox dem fekki goor ñi jigéen ñi yamb yi wala le lëpp yi wala gunóor yi ñoom ñooy def liggéey boobu ñooy jël mani yu góor def ko ci mani yu jigéen mu jur mango wala mu jur orange wala mu jur banana nature bi sax laa la wax garab yi sax góor mani yu góor ak mani yu jigéen ñooy ñooy sëy pour mën am mango wala orange wala yëpp nga jël ko ci bàyyi ma yi kazalika nit moom ñëw nit ay nit ñu jóge dukk ci àdduna bi ay junni at junni at tey ñu xëy na ñoom déedéet loolu yàlla def ci nature bi def ko ci garab yi def ko ci gàncax gi def ko ci doomu aadama yi def ko ci rab yi déedéet ñun dañu koy soppi ñun ndax ñun dañoo kokk ñun nit dañoo kokk ñun ñoo moom àdduna bi yàlla moo ñu fi indi def ñum xel waaye nag dañu koy jël moom yàlla taxañ ko ba mu ne kodd ñu sànne ko ci sën ba yor suñu àdduna di ko doxal ci suñum xel xel moomu moo leen yóbbe tey ñu ne dañuy jël góor ak góor di leen sëy jigéen ak jigéen di leen sëy yéen a dégg wax ci li may wax kenn du ko weddi scientifique yëpp dakkoon nañ ci la reproduction humaine végétale animale njur ci nit ci gàncax ak ci bàyyi ma yi góor ak jigéen ñoo koy seq yàlla dafa bind góor ak jigéen ci nit bind góor ak jigéen ci bàyyi ma yi bind góor ak jigéen ci gàncax gi lépp luy dund dafa am góor ak jigéen ñoom ñoo war a boolewoo woo sëy ngir mën a jur jur googu mooy tax ñu mën a dëkk ci kaw suuf ci ñu yàlla dëkkuloo ñu di ko jaamu ba keroog muy taxañ lépp ñu fekki ko loolu la tubaab bi ak ñi ànd ak Macky Sall ak ñoom ñooñu nga xam ne ñoom Moloch mooy seen yàlla Moloch Moloch boo demee ke seen kaaba ga ñu tudde Baphomet foofu fa la Moloch toog seen yàlla ji fa la toog yàlla ji tànk yi tànku mbaam la bopp bi di bopp fas fasu Macky Sall wi yaram bi di yaramu nit dënn bi am weer weenu jigen, te góor la nenañu koku moy mooy seen ca Baphomet ba du ngeen démé Calcutta wala ngeen dem en Inde da ngeen ko fa fekk le Baphomet de satanique ñom ñepp ci la dox nak Macky Sall Macron Joe Biden ñom ñepp ñoo bokku bobu parce que dafa am ay xërëm yu nekk ci biir ak i fétiche ay sacrifice humain xale yi ngeen gis ñu leen di sàcc ak xale yi réer yëpp foofu lañ leen jëmee jigéen yu wasi ni ñu jël seenug leget leget gi mooy placenta moom la olof tuddee leget dañ koy jël di def ay xërëm waaye ñi ñuy xërëm mooy ñi nga xam ne gëmuñu yàlla moo tax gëm yàlla mooy téere bi gën a wóor ci doomu aadama boo gëmee yàlla wóolu yàlla di sellal di liggéey di ñaq ci saw doole di dundee di moytu bon yéene nit ko gis nga yéene ko lu baax gëm yàlla di jaam yàlla wóolu ko doo ko bokkaale kenn wóolu gëmoo kenn du sëriñ tuubaa du Alaaji Malik du du kenn yonent bi sax gëmoo ko yàlla nga gëm ndax yonent bi sax kenn du ko gëm yàlla la ñuy gëm yonent bi dees ko gëm gëm gi may wax nag bokkul gëmu gëm li yàlla yónni yonent bi li yàlla yónni yonent bi ngay gëm waaye yonent bi jëmmam duñu ko gëm jëm gëm yàlla rek moo ko yoyoo moom képp la ñuy gëm duñ ko boole kenn yàlla foo dégg ñu naan yàlla ak rek yàlla ak rek am na lu des gëm-gëm gi may wax nag mooy gëm-gëm gi jiit mooy gëm-gëm gi original bi nga xam ne moom yàlla képp ngay gëm te gëm gi du aju ci lenn lu da ko war a gëm yonent bi soo koy gëm day fekk la yàlla yónni ci moom nga gëm ko xam bokkul gëm yàlla yi képp bokkul ak gëm li yàlla yónni ci nit donc gëm googu laay wax mooy gëm gu sori googu loolu nag boo ko defee da lay aar ci seen fétiche yi ñoom parce que ñoom xam nañu bu baax li ñuy def ndax yàlla ba mu bindee seytaane bind doomu aadama seytaane yàlla kàttanal ko booba la seytaane am doole ci la seytaane dugg fu ne nag teg ay nitam teg ay pexeem xam ay secret yàlla yu bari nag moom seytaane xam nu ñu mën a yàqee xam nu ñu war a defaree yépp xam na ko mu am ci biir ñu mu njaboote ci biir njaboot gi am ñu baax ci biir njaboot gi am ñu bon noonu la yàlla doxalee jullit ñi am na suñu baax am na suñu bon yàlla lépp lu mu sàkk daf caa daf caa def ak xarale ak xikma ba ñii dañuy baax ñii dañuy bon loolu noonu la tëddee ñu bon ñi nag foofu la Macky Sall tànn dugg ak ñu baree baree bari boom Imaam Guèye ki ñu bari ñu nekk ci réew mi te jii dañoo tànn ñoom dugg ca mbon nga ndax mbon nga kat da lay may xaalis mbon nga dalay may nga siiw mbon nga da lay may mbooloo bari na fi ñu yor mbooloo di bàkkoog seenu mbooloo naan sama mbooloo mi ñoo ëpp mbooloo ñoo ëpp mbooloo billahi wallahi watalahi mbooloo muy tàbbi safara ëllëg la amul sax dem dikk mbooloom seytaane la ndax du mbooloo mu tegu ci charia du mbooloo mu tegu ci lépp loo xam ne lu yàlla bëgg la te lii ma leen wax jël leen seen bët ngeen teg ko xool mbooloo mu bari mi nekk ci réew mi ku fi dajale mbooloo ku ne xoolal sa mbooloo moomu ndax tegu na ci farata ak sunna nattu ko ci rek boroom xam-xam yi ci àdduna bi yëpp d'accord nañ ne borom ak xam-xam yi mag yi ñuy wax yëpp d'accord nañ ne lépp loo xam ne lépp loo xam ne na nasuñu ko mënuñu koo natt ci mbalaanu sharia mbooloo mu lum bari bari bari bari bari lu jëf ja bari bari bari bari lu alal ja bari bari bari bari bari lu tabax yaag lépp bari bari bari bari lu coow la bari bari bari lu ñun la ñun la télé yaag rajo yaag addiya yaag xaalis yaag gàmm yaag màggal yaag dagale Macky Sall yaag meeting yaag waali sekk gaag mbooloo moomu yëpp laa la wax la ñuy jëf bu ngeen ko jëlee teg ko ci miisaanu sharia ngeen teg ko ci balance sharia ngeen xool lii jëf ji ñu fi jëf ndax méngoo na ak sharia bu ko méngoowul safara lañ jëm ñoom ñëpp amul dem dikk amul werante dañ leen di nax ku bañ a tàbbi safara nag ëllëg na nga génn ca mbooloo moom taxaw na la yàlla waxul ak borom mbooloo yi de amul fenn ci alquranul karim fu yàlla tuddee mbooloo te tegu ca musiba fu ngeen fekk mbooloo mu bari ñuy bàkkonte yàlla musiba lay teg ci seen kaw ndax xam na ne mbooloo moom la ca ëpp safara lañ jëm moo tax mu ne sa sama safara gi danaa ko rokkos duy ko di ko rokkos ba muy bañ ba nit ñiy tëmb waaye sama àjjana ji ña koy mos du bari kon Dieu parle aux exceptions yàlla ñu néew lay waxal mbooloo mi 7 milliards d'habitants yi 7 milliards yi li ci yàlla soxla ci nit matul 1 million 7 milliards d'habitants yi nekk ci àdduna bi pour xamal leen ne mbaax du lu yomb topp yàlla du lu yomb gëm yàlla du lu yomb ndax nit ñi ma riirandoo ku jóg ñu jóg kuy dem ñu topp la alaaji Malick jóg ñu ne ah yaay sama sëriñ topp naa sama sëriñ bi waay waay bàyyi ma gëmi alaaji Malick ndax mu tàbbal ma àjjana alaaji Malick dafa moom àjjana sëriñ Touba jóg dem ñu ne waay waay man sëriñ Touba yi sama sëriñ ndax mu tàbbal ma da ngeen dagale seen mbooloo nag di xaar Serigne Touba ak El Hadj Malick àdduna ñoom bu ëllëgee ñu taxaw di xaar seen bopp ñoom nu ñuy mucc El Hadj Malick nee na yorulu ma àjjana kenn sama bopp laa jéem a saw na yorulu ma àjjana kenn sama bopp laa jéem a yéen nag ngeen lànk na du ngeen def na Serigne Touba defoon ak El Hadj Malick jaamu ji yàlla ba ëllëg ñu mën a mucc ngeen taxaw lank nekk ci mbooloo yi di caaxaan guddi ak bëccëg nekk ci réew moo xam ne ak ngóor jigéen moo fi law ba dugg seen biir kër yi waaye bu coupe d'Afrique bi ñëwee ngeen génn mel ne ay yamb yamb yoo génne te waaye buñ nee xeex góor jigéen doo gis kenn tey nag la xeex bi tey la xeex bi de tey jii à 15 heures waaw bu ñetti waxtu jotee ginnaaw midi tey ca place de la de la nation danaa xool nag xool ba xam ñi génnoon ci kubu saytaane boobu xam ngeen kub boobu saytaane la kub boobu tubaab yi ko tëgg yëfu saytaane la. Iblis moo nekk ci biir kub bi kub boobu Iblis la da jaal moo taxaw noonu moo tax yéen ñëpp ngeen génn léegi nag gis nga ni ngeen ko jaamoo bi. gis nga ni ngeen jaamoo ko bi yeen ñëpp genn ñak toy xep bayyi seen yitte yep ñu bari julli wuñu bis bobu kenn julli wu ci yeen ñëpp ngeen bayyi seen farata yep top ab ku bo xamna dajjal la koku mbolo mo mu safara lañu jëm ñom ñëpp kene tooñ gi ngeen tooñ yalla ci ñak julli ci waxtu yeen ñi teewon ci ku ba di lambar lambar yeen ñëpp wallahi alazim bu ngeen ko tuubu safara ngeen jëm dem leen ngeen nek ci seen farata tey liggey tabax rew mi nit ñi mëna dund tay ñi ngi leen di woo ci jikko yu baax di leen wo ci lu ngeen ñu xex li yalla bañ tay yonent bi bañ ko nit yëpp yi bañ ko ñi gëmul yàlla sax bañ ko ñi gëmul yàlla sax bëgguñu ak ngóor jigéen ñi gëmul yàlla bëgguñu ko bi muy dugg France fii ñuy voté loi bi Christian Taubira di ko voté porté ko sous le régime de François Hollande keroog dama manifeste ñu bari manifeste ji tase naa ci manifestation bi ñoo xam ne ay tubaab lañu ay atte lañu du gëmuñu yàlla boo wax ñoom ay atte lañu waaye ñoom nee nañ ànduñu ci góor jigéen ku gëmul yàlla sax maanaam loolu yëfu nit donc c' est 9h 13h waaw mu ngoog 9h 13h damaa jum waaw mu ngoog date kon tey la kon kon daja ba tàmbali na tàmbali na voilà heure bi waroon na fa fekk ñëpp nekk fa mu fees dell senegal gépp génn àdduna bi yëpp génn ñëpp génn waaye non non ña ngay yeewooguñu sax boo demee ndékkeeguñu ñoom ñu nekkoon ca kub ba gis nga bu seytaane woote bu Michael Jackson ñëwee wala Youssou Ndour woote wala Wally Seck woote lépp loo xam ne seytaane moo ca laxasu wala sëriñ yenn ci seen sëriñ yi woote ngeen fees dell loolu yëpp yëf seytaane la waaye bu ñu nee nañu jóg àndandoo ngir yan fii sabilillahi néewuñu dañuy woote màggalu Touba néewuñu dañuy woote gàmmu Tiwaawan néewuñu dañuy woote meetingu Macky Sall néewuñu dañuy woote ab coupe néewuñu dañuy woote Wally Seck néewuñu dañuy woote kenn bi woote woote borom bi subhanahu wa taala la dañuy woote fii sabilillahi pour lan pour jaami yàlla yi mën a mucc ci ak mbon moom la ñuy woote tey mbo mbooloo mi nga soxla doo ko am ndax mbooloo mi ngay xeexal bëgg ñu mucc mbooloo moomu la iblis këf ba bu Muntaxa Mbàkke woote ñu dem bu Mbay Si Mansour woote ñu dem te mbooloo may dem foofa mooy mbooloo miy dem ci Wally Seck mooy mbooloo miy dem ci Youssou Ndour mooy mbooloo miy dem ci coupe bi mooy mbooloo Macky Sall mi menn mbooloo seytaane bi moom génn seddoo bu ko aaya wal sa moome ko aaya mbooloo ma demal la waaye bu yàlla soxlaa kenn du ñëw bu yàlla soxlaa kenn du ñëw loolu moo lay xamal ne ku ci dee bi safara yéen ñëpp seen safara moo gën a wóor seen àjjana lii man maa leen koy wax tey ji seen ñàkk a dee moo leen tee tàbbi safara ndax li yàlla bëgg bëggu leen ko da ngeen toppandoo ak riirandoo rek seen ngëm yàlla àggul ci ngeen jóg sol seen i dàll génn seen kër dem pacifiquement ndax du xuloo du xeex sànnante wu ñu xeer lakk de moo seen amul autorisé nañu marché bi ngeen génn bàyyi seen lépp tëj seen i kër bu ko laajee jël seenu njaboot keroog ba mu amee manifestation contre góor jigéen France dama génn jël sama njaboot yépp ñu ànd dem manifester ji waaw damay waaw parce que lu waaye di woote da nga koy nuru waaye réew moo xam ne ay naafeq rek fi nekk ci naafeq googu ci lañ bëgg a naxee yàlla ngir dugg àjjana du ngeen ko mos daa iman ndax naafeq du dugg àjjana ndax yàlla jaralu leen dara seen bopp yéen seen jëmmi bopp yi sax jaralu leen dara seenu dund bopp pour mu jag sax du ngeen ci sonn dañuy wax guddi wax bëccëg waaye dara dara waaw ne ma lii de waaw damaa am ngénte de damaa am dëj de waaw damaa feebar de sama ordonnance bi de dañ maa liggéey dama opéré loolu rek ngeen man toog di cogg ak yelwaan rek ci suuf waaye liggéey déedéet xam-xam déedéet cogg toppaate rek màggal fi gàmmu fee cant fi xew-xew fe karawoote fii faagee faag yi loolu dana am mbooloo de lépp lu seytaane di dugg dana bari mbooloo waaye lu yàlla bëgg doo ci gis kenn ana gen yéen ne quatre-vingt-quinze pour cent de musulman bés bu ne ngeen taxaw di ko wax ay jullit lañu réew mi réewum jullit la réew mi réewum Bàmba la réew réewum El Hadj Malick anamu anamu ah ay sa Bamba ay tàccuka ay tàccukaayu coupe tàccukatu coupe la fi bày moom Serigne Touba moom li mu fi bàyyi yëpp mooy ñuy topp ay coupe moom moom la fi baal yàlla moom li fi liggéeyal yàlla mooy ñoo xam ne mën nañoo génn ci ab coupe ñoo xam ne mën nañoo dee ci football di xëm ñoo xam ne mën nañoo tàccu yàlla ñooñu la fi bàyyi ak ñuy dem concert Youssou Ndour ñooñu la fi Serigne Touba ak El Hadj Malick bàyyi ñoom El Hadj Malick Serigne Touba moom moom mooy dem katu Wally Seck yi dem katu Youssou Ndour yi gàmm yeeg màggal yi joxe addiya ñu def seen i poos rokkas moom fees duy seen saaku xaalis Serigne Touba moom usine xaalis la fi bàyyi moom Serigne Touba ak El Hadj Malick ñoom loolu lañ fi bàyyi ak ñoo xam ne dañuy toog ñoo ñu indil àdd yi ñoo xam ne dañuy tabax ay jumaa ki milliards yi ay université ay milliards sëriñ Tuubaa boobu ñooñu la fi bàyyi moom ñoom diina ji ñu fi bàyyi moom la ñoom ñoom diina jooju sëriñ Tuubaa bàyyiwu ko fa Alaaji Maalik bàyyiwu wala boog ñoom bu fekkante ne woon ba ñu dund ñoom liggéey nañ ci loolu ba ñu demee ñi leen fi wutu ñoom ñoom ci koppar la ñuy dox xaalis ak mbooloom seytaane ci la ñuy dox ngeen ne kenn du ko wax ngeen ne kenn du ko wax lii may def nii man mi lii may def nii lii may woote nii di woote di ko def waa ànd sàmm jikko yi di ko def yéen ñi may déglu ñu bari di ko def lan moo tey jii Muntaxa Mbàkke Mbay Si Mansour ñoom ñi ne ñoo fi kilifa diina ci réew mi lu leen teewoon tey jii ñoom ñu jiitu ci mbooloo mi tey génn taxaw dama leen laaj dama leen laaj ana Muntaxa Mbàkke ana Mbay Si Mansour ana ñaari cerno yi cerno bi ci kaw cerno bi ci suuf taal yi ana Duudu Laay caw ma ca Yoof ana Ahmed Tidiane Ba ma ca Medina Gunaas ana Thierno Samassa ma ca Fuuta ana ñi si euh, waa Thierno Ba Thierno Ba ñu sant Seck ana ana ana ana ana yéen a fi taxaw de nan ñun ay dara lañ sant Mbàkke lañ sant si lañ sant Cawlaay suñu maam yi daal ñoo gën seen maam yi suñu maam yi ñoom ñoo leen yoreel àggina waaye yéen ana ngeen jikko yaa ngi yàqu nit ñaa ngi ci nguur jigéen gi mi ngi law dugg suñu njaboot gi ñun ñëpp jaaxle nañu waaye yéen du ngeen génn lii may def man santuma Caw laay deng mam maam sekk cene ba santuma Mbàkke ba ca Touba santuma si ba ca Tiwaawan santuma ko maa ngi ci mas ak ma li ma war man ba makoy def man fi ma toll ba makoy xex man ndax man yeen ni ndax yeen man dama leena gën nanguma ad ye lekuma ad ye kan sama ñak sama liggey lay dundé yu sama du jaamu yalla wawuma kenn ci gàmmoo ki magal neewuma kenn sama mama gën sa mam waye mang ngi waslu ak ci li wa li may def yeen yeen xana dafa bokku jaamu yalla gi yow Muntaxa Mbàkke bay Si Mansour yéen kilifa diine yi nekk ci réew mi yëpp lii may def yéen da ko mënul yëkkati seenu kàddu li yëkkati ko wax ñëpp génn ngeen àndandoo ñoom jaamu ci yàlla wala yéen yàlla ji a jaamu bokkul ak yàlla ji ñu gëm ñun mën naa nekk nag mën naa am bokkuñu yàlla mooy yàlla ji ma doon tudd sànq yàlla yi molo jooju nga xam ne ma nga ca bafame mën naa am yàlla jooju ngeen jaamu yéen néew moom la waaye daf koo nuru damay laaj ndax yàlla jooju ngeen jaamu yéen muy ab laaj bu may laaj damay laaj maam Samba Diouf nee na ma Akhenaton ci mu di gis nga benn seytaane googu benn benn doomu iblis gis nga kii dafa dafa mànd ci lëndëm dafa mànd ci lëndëm maam Samba Diouf bii nee na ma Akhenaton ci mu di parce que gis ngeen de gis ngeen de maa ngi xeex góor jigéen yëkkati sama kàddu goo xam ne mun Mbàkke yëkk ñemewu cee yëkkati kàddoom Mbay Si Mansour ñemewu ko cee yëkkati kenn sañu cee dox ñaxtu ma yi ci wax ak li yàlla wax ci ngoor jigéen moom maam Samba Diouf nee na man nee na man damaa alku damaa alku damaa alku ndax li may tudd Muntaxa Mbàkke mbay si moom si moo tax ma alku waaye xeex day xeex góor jigéen na ci góor jigéen la bokk moo tax da ngay seet lii da kii kii ci nit safara yi la bokk moom mi xoolal xoolal xoolal kii ni muy xalaat kon daal man li ma def man yàlla bëgg ko yàlla bëgg ko li ma def daal moom yàlla sib la kon daal góor jigéen waruma cee wax bi yow nee nga man dama alko subhanallah da ngay da ngay xolli da ngay seetli léegi man li may xeex man nee na man maa alku <laughs> subhanallah da ngay seetli waaye nag yàlla baax yàlla baax yàlla xam na ñi alko ñi alkowul yàlla yàlla dara umb ko xam na lépp bon loolu eh, loolu parenthèse la may wax ne heure bii waroon naa fekk ndakaaru yëpp fees deel ñi nga xam ne ñoo génnoon ci coupe bi di lambar mba di lambar mba di di di tambaambaloo ko layam layam nekk lambar lambar yi ci biir ndakaar yi ab bisub lëmm ñu ne bis ba kenn du liggéey bis ba kenn du julli bis ba kenn du def dara bis boobu bisub kub la kub boobu dajjal la kub boobu iblis la kub boobu mooy seen mooy seen molok kub boobu ñi ko jiite ñëpp ay góor jigéen lañu ñi nekk ci ginnaaw yëpp affaire weddi yàlla mooy seen moo moo leen tax a jóg fam taxaw ci àdduna bi ñoo xam ne ñoom nee yàlla dañ koy rendi xaatit mu nàcc ñu teg ko fële dañ ko bëgg génn ak seen dund yàlla dafay war a jóge ñoom ci loolu la ñuy dox ñoom ñoo ñee Macky Sall benn la ci ñoom ak ay kilifa yu nekk ci biir réew mi ñoo xam ne ñoom ak Macky ñoo ànd ci loolu di nax nit ñi ndax mënoo woon nit ci yàlla te xamoo yàlla yàlla bala ko caa woon danga koy xam mënoo xam yàlla ci juddu rek juddu kese nga ne yaa ma gën a xam yàlla da juddu rek jiwala jur rek nga ne yow yaay kilifa diine gi mënta ne yàlla da koy jàng ba xam ko ragal ko topp ko xam yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax soo ko xamee ragal la muy tere waaye nga ñeme ko ci kóolu goo ko kóolu ñeme ko ci wóolu confiance boo am ci moom nga ñeme ko ndax sa diggante ak moom boo ko toppee xam ko jaamu ko da ngay dem ba dootoo ko ragal ci ragalu euh, ragal comme ni ñu ragalee nit waaye da nga koy ragal ca ragal la muy tere waaye nag sa diggante ak moom danga nga koy ñeme ñeme gi la tax nga di ko ñeme mooy xam ne yow lam lay digal yaa nga ca nga rafet njott ci moom am mbëggeel ci moom yàlla du ku ñu ragal dañ koy bëgg gannaaw ba nga toppee ay tereem mooy too ay tereem topp ay digle kooku moom moo kooku mooy kilifa diine moo tax mooy wax ak bëgg démb benn waay démb ñuy wax waxi cheikh ma ne ko cheikh yi mag ñi ñooy cheikh yi cheikh yi ngeen di wax Serigne Touba ak El Hadj Malick ñoom ay cheikh la ñun mosuñoo cheikh ak kenn mu ne ma lu tax ma ne ko cheikh garaat bu rëy la ci diine ku ñu ne si yaa cheikh yaa cheikh ku ñu ko wax rek borom dama leen ci dëkku naar yi wala ngeen toog ak naar na ko kii ab cheikh la nga ne ko anaa cheikh boo ko waxee dana la wax cheikh toujours moo naar la cheikh ci naar yi la jóge du olof cheikh cheikh kooku tur kooku naar la kooku grade la ki naar yi ci xam-xam ak ci ci ci ci tolluwaay surtout ci diine am sëñ bee seexal ki sëñ bi sëñ bu musta seexal kenn ndax kenn du seexal ko amul xam-xam sëriñ bi ci moom mooy seex ndax moom amoon na xam-xam sëriñ Tuubaa ci boppam mooy seex bi am na xam-xam alaaji Malik moom daawul seexal waaye da daan xawma da daan da daan euh, def ay muqaddam alaaji Malik yéen ñi nekk tu Tiwaawan wax leen ma kan la alaaji Malick masa def muqaddam te jàngalu ko ba mu mokk ba mu wóolu ko ba xam ne kii am na xam-xam mu doo koy mu doo koy def muqaddam wax leen ma ko léegi la ñuy toog ñi kenn ku nekk jël say yi nga muqaddamal commerçant yi nga muqaddamal la tëggat lamb yi ngay rek parce que amoo xam-xam alaaji Malick mi nga xam ne moom ngeen di woo moom alaaji Malick Tiwaawan googu musu faat muqaddamal kenn jàngalu ko ba mu mokkal ko da daan jàngale moom alaaji Malick fànn xam-xam yu bari la daan jàng laaj ko sëriñ Adi Touré ma ma ca Euh, ma ca Fass ku jàngal sañu Adi Touré Adi Touré mi ci faas ak ki nga xam ne mooy Alaaji Rawaan Ngom ca Paal ak ki nga xam ne mooy Abbas Sëriñ Abbas Sall ca Louga ak Sëriñ Alioune Ba ca Ngumba Ngéewul ak ñu baree bari ay muxaddamu Alaaji Malick Si damay laaj ñoo ñee avant avant Seydil Hadji Malick leen def ay muqaddam ndax dañoo jang ci daaram jojé jang fa alquran ba mokkal jang fa xam-xam ne xam-xam yu bari fekk ba mokkal ba ba Alaaji Malick xam ne ñii mën nañoo jàngalewaat mu doog leen def muqaddam ñu dem togi seen kër ñibbi may laaj kan ci cheikh yi ngeen wax ne mom la Serigne Touba jangal wax leen ma ci kenn ko Serigne Touba jangal ba diko def cheikh kenn laa la wax ne diw mi Serigne Touba ko jangal ba def ko cheikh wax leen ma ci kenn ak fan la ko cheikhale ak ana ana cheikh bi xam nga diine képp koo ci diine ndomba tànk boo ci am dañ koy xaatim ndomba tànk boo ci am diine dañ koy xaatim rawatina bi tasawuuf nag laa wax tasawuuf sax waaw wala rawatina tasawuf muy ak yoonu suufiyanke képp ndomba tànk boo ci am grade boo ci am dañ koy xaatim ci kayit loolu yéen xamu leen tasawuf moo tax mais dam leen ngeen xam tasawuf fi mu jógee ma nga jógee Iraq di dox ba dugg Misra Égypte jaar Syrie jaar dëkk yu bari Maroc yooyu Algérie ba dugg senegal tasawuf tasawuuf amul ndomba tànk boo ci am te xaati muñ ko ci këyit comme école ndomba tànk boo ci am wala grade boo ci am diplôme dañ koy def ci këyit ma leen di laaj fan la Sëriñ Tuubaa masa xaatimee wala alaaji Malik xaatim na diw mi maa ko seexal amut topp naa ko ci fu ne gisuma ko kon diina gi sax dégguñu ko tasawuuf gi ngeen di woote xamul leen lan mooy tasawuuf yéen ñiy wax naan da ngaa torox yow bu ma toroxee yow kon xaw ma foo jëm yow xamu yow li may wax xamu ko ci boppam maa la gën a maîtriser a cheikh du ñu caaxaan cheikh Serigne Touba ci waxam cheikh la woon moom moom Serigne Touba moom mooy cheikh bi Serigne Touba mooy cheikh bi moom. le laaj leen ma kan ci ñi wër Serigne moo amoon garaadu Serigne Touba amu ci kenn du woon Serigne Touba moom li doon moom rek moo ko moomoon moom rek moo ko nekkoon. amul keneen ku nekkoon ci ëttub Serigne Touba am dimension bi xam bi Serigne Touba am moom mooy cheikh bi kon moom mënut a nekk loo xam ne kenn ci ku ñu ko wër nekkuñu ko. ba noppi ñu bëgg am turu cheikh boobu cheikh boobu mooy Serigne Touba cheikhalul kenn yooyu dañuy wax gi amu ci kenn ku mën a génn këyit wu bind na Serigne Touba ko bind signé ko ak signature am boobee nga xam ne ñi xam Serigne Touba xam nañ ñi muy signé ci suuf ngeen wax ne kii Serigne Touba ko cheikhal amut Alaaji Malik am na ñu mu def ay muqaddam loolu am na gis naa ay mbind ay ñi ma leen fi limal ñu bare bari ñoo xam ne xalaaji Malick bind na daf leen muqaddam xaatim ko bind ko ci këyit signé ko na yow muqaddam nga demal ca sa dëkk nga toog fa di jàngale comme jàng nga ba am xam-xam natt nañ la ci fànn yëpp ba réussir nga say examen yow mën ngaa nekk professeur léegi demal ca ëtt boobee nga toog fa di fa joxe werdu tijaan yi di fa jàngale xam-xam bu bu la kenn jigéeti ñëw tuyaawoon di fi jàng si yow toogal foofee sa tund woowu yëpp nañ fa jàngale gis naa ay këyit yu mel noonu yu alaaji Malick bind waaye ku Sëriñ Tuubaa formé ba noppi na ko demal toog palaasu diw damal toog fa di jàngale nga am kayit wi nag ma ko génneel gisuma ko amut je defi défie yéen ñëpp laay wax nag ci kaw Muntaxa Mbàkke ba ci suuf mbay si maasu ba ci suuf yéen ñëpp laa défier waa yoof yéen ñuy wax yëpp naan Seydina Limaamul yéen ñëpp ku ci am benn xaati mu Seydina Limaamu bu naan diw mii dañ koo muqaddamal wala dañ koo seexal moo xam ne ngeen ko tuddee muqaddam cheikh kenn yéen ñëpp laa wax ko ci am nga wax ma ko fi parce que loolu ma nga jógee tani li ngeen di wax ay muqaddam ak cheikh joge nga ki Mauritanie la jógee ci naar yi naar yoo ko indi dugal ko Sénégal mi nga jógee ci diinay xaadriya euh, foofu la jógee muqaddam ak cheikh yooyu ci xaadriya la jógee ndax xaadriya mooy tariixa bi njëkk ci tariixa yi muqaddam kenn du ko def nit te jàngaloo ko da koy jàngal tarbiye ko jàng mooy jàngal ko fekk jàngal ko fànn charia yépp mu miin ko nga tarbiye ko pour mu ragal yàlla ndax jàng dong am xam-xam dong doyul boo amee xam-xam te ragaloo yàlla boo amee xam-xam te respecté woo yàlla boo amee xam-xam te amoo warma amoo yar amooy teggin boo ko amul jaruñu dara moo tax tasawu dañ lay jàngal ba noppi nag tarbiya la tarbiya bi ñuy wax am na lu ama am la tarbiya mooy yar nit nit nag doo ko yar pour exploiter ko bu ñuy wax yar du yar ko pour def ko jaan ba def ko làppato di ko lekk loolu taxul ñuy wax yar da koy dimbali yar ko ca toogin wa ca waxin wa ca jëfin wa ca teggin ya ca yar ba ndax mu mën a jariñoo xam-xamam bu noppee nga ne ko doxal ñibbi dama liggéey yor sa bopp yor sa njaboot di dundee lu lew loolu lañuy ñuy wax tarbiya waaye ta jàpp nit ta di koy defal ko lavage de cerveau ba lu mu liggéey indil ko kooku ak kooku ak njaam la kooku ak noggatu la ak làppato la kooku dangay dundee doomu aadama da nga koy nax loolu du diine dégg ngeen de kon loolu laa ki doon sànni ci wet googu di wax ne li tax mu mënuñoo génn fees dell ci ndakaaru yii mooy yii yii yii yii mooy problème yi bu ñu wootee màggal Tuubaa fees dell bu ñu nee Tiwaawan mu fees dell bu ñu nee Yoof mu fees dell Medina Gunaas fépp fees dell waaye buñ nee nañu jógandoo ñun ñëpp nag amatul nag Tiwaawan ak Tuubaa ki Medina Gunaas amul xàjjaloo nañu dellu ñun ñëpp ca la nga xam ne moom la ñu yàlla sant te moom la ñu doon te mooy jullit al muslim ak al su fekkente ne dëgg la ay muslim lañu de waaye yaakaaruma ñu nekk ay ay muumin waaw li lay xamal na ay muslim lañu waaye duñu ay muumin mooy gis nga lii lépp lu yàlla di digle di ko digle ay jullit ñu ko bokkandoo def duñ jujugandoo jamais jame moo lay xamal ne ñun duñu ay muumin jullit bokkul ak way gëm mën ngaa nekk jullit ba noppi doo gëm moo tax muslim naafeq yi ñu ngi ci biir muslim gi naafeq yi ñu ngi ci biir way way way gëm yi dégg de nekk mën ngaa nekk mën ngaa nekk jullit naafeq yi ñi ngi ci biir jullit waaye waaye waaye waaye way gëm yi ñi gëm dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ko jëfee foofu naafeq amu fa moo tax nekk jullit doyut nekk jullit kepp doyut boo nekkee jullit mooy njaal beenub ku jëm ca yàlla jullit xëy taxaw na man gëm naa yàlla gëm naa yonent bi gëm naa malaaka yi mu yónni gëm naa bésu penc day taxaw yàlla atte boo ko seedee loolu dugg nga ci biir diina ji lislaam ji léegi julit nga bunt bi nee na képpaj ubbi ko nga dugg waaye dugg nag ci biir diina ji nag taxul nag nga nekk jullit ba yàlla bëgg muy almumin mooy jullit bi nga xam ne moom gannaaw ba mu defee shahaada yooyu ba mu defee seede yi ci yàlla am na yonent bi am na gëm na malaayika yi gëm na leen ñoom ñaar gëm na bisu penc ba dugg ñu ne ko duggal mu dugg ci saal bi nag nekk ci biir saalu jullit ñi nag léegi mi ngi ci biir waaye nag saal ba dafa am lu ñu fay jëf nag loo xam ne mooy tax nga doon jullit piir nag xaqan mooy almumin boobu mooy jëf ya ak taxawaay ya kàddu yaak na ngay dundee lépp foofa nag dafa am nu ko yàlla diglee boo ca nekkul nag dugg nga ci biir waaye da ngay ruube si yow ab naa feq nga yaa ngi ci biir waaye julli woo wóoroo xeexoo góor jigéen defoo dara yow boo dee tàbbi la yow ab naa feq nga nekkoo almumin yaa ayuhal yaa ayuhan naas la yàlla njëkk a wax ci alxuraan yaa ayuhan naas nit ba yàlla di wax ci alquran nit lay waxal waxula ku gëm waxula ku waxula nit rek la yàlla yàlla dafa njëkk a tàggat nit parce que moom yàlla dafa am méthode am organisation am temps lu nekk par étape la koy def da damuy soog a njëkk wax ci alquran yaa ayuha naas doomu aadama lay waxal waxu waxul julit ak ku dul julit de waxul góor jigéen naas doomu aadama képp la yàlla di waxal di wax ak moom ba yàgg mu commencé di wax di indi yaa ayuha alladina amanu jóge na ci nit léegi ba mu waxee nit ba ba nit commencé nekk nit léegi mi ngi naan yaa ayyuha alladina amanu moom nit lay waxal tuuti waaye nag ban façon nit nit bi gëm nit bi nit bi nit bi bëgg am imaan imaan mooy nga gëm yàlla gëm yonent bi gëm malaayka yi gëm bisu penc gis nga mi ngi indi léegi yaa ayyuha alladina amanu nit ki nga xam ne léegi jóge na ci état bu nit moom la doon waxal ba yàgg mu jële ko foofu indi ko def ko beneen beneen façon nit mooy ban nit bi gëm yàlla gëm yonent bi gëm bisu penc gëm malaayka yi yaa ayyuha alladina amanu ñu dem ba yàgg mu ne ñu dem ba yàgg gis nga mu indi léegi beneen façon nit bi nga xam ne rek mooy nit bi jëf nit bi nga xam ne mooy almumin mu dem ba yàgg muy wax ak nag léegi nag ñi nga xam ne léegi gëm ñi nga xam ne léegi dugg nañ ci diine ji ba noppi léegi nag gëm ko ba noppi di ko jëfe gis nga troisième étape bi ñuy jëf mooy ñiy jóg tey di xeex góor jigéen ñiy jóg ngir bëgg nit ñi am jikko yu baax ñiy jóg di fexe ba nit ñi nekk ci li yàlla bëgg ñiy jóg fexe ba doomu aadama yi di dundi dund gu sell dund gu sell gu leen mën a muccloo fii seen àdduna ñu dund dundu gu baax gu neex ci àdduna waaye bu ñu dee tamit mën a am ngër yër mën a yàlla pour tabbi àjjana ñetti ñetti état bu nit yooyu ñoo am kenn du ci wax lii ma leen wax Muntaxa Mbàkke mosu leen ko wax lii ma leen wax Mbay fi Mansour mosu leen ko wax lii ma leen wax kenn laa ma a dégg ci sama dund mu daan taxaw di ko wax muy Mawlana Cheikh Abdoul Aziz Si Dabbaax Malick yal na ko yàlla yërëm atte ko ci yërmandeem tabbal ko ca àjjana firdawsi yu gën a kawe rëccuwuñu li ñu fekk bokkanteeg moom jamono ñi ngi sant yàlla bi ñu yàlla mayee ci suñu dund ñu fekkee moom ak jamonoom ndax mënoon nañoo dund ba dee duñu fekke jamonoom waaye moom moom Mawlana Cheikh Abdoul Aziz Dabakh képp ku nekk Sénégal wala ku nekk ci àdduna bi képp war nga war nga di ko ñaanal nit la koo xam ne dundam am na njariñ ci suñu dund génn àddunaam sax dafa am njëriñ suñ dund waxuntum laa dundam ndax li mu liggéey ci àdduna ci dundam lépp lépp lépp ba àddunay tukki du fay te loolu unanimité amu ci gisuma kenn ku ku lànk loolu kooku unanimité la am kooku la yàlla gërëm kooku moo am ngërëm yàlla kooku mooy ki nga xam ne ki yàlla gërëm noonu la say mbir feeñ da ngay am unanimité ci lépp amul luñ la mën a waxal amul lu ñu la mën a jëf ci lu ñaaw amul ku fi yëkkati tuumaal ko tamit ay tuumaal yi doon waaye mënoo ci indi firnde ci lu ñu xam kooku yàlla na ko yàlla yërëm te yàlla dimbali ñu ñun teg ñu ca fa mu tegoon tànkam moom mais ba yàlla kàttanal ñu ñu man la mu manoon ndax la mu doon xeex jógu fi ba léegi de lu bon la mu doon xeex di ko wax saa su ne ngeen dégg bande yeeg ojo yeeg vidéo yi di génn su bu ne la mu doon xeex tey la waalo gën a aay fii ci réew ndax ñi ko fi wuutu jéemuñu ci dara jéemuñu dara da daan toog fi naan qaala allahu qaala rasulu daawoo ko dégg mu ne qaala Maodo wala qaala Ousmane si daawoo ko dégg mukk su ko mosaan rëcc sax mu wax na Maw Seydil Hadji Malick di nettali ba ne sama sama baay day tuub maa ngi jëggalu sax ci li may jël exemple ki sama baay mooy Seydil Hadji Malick kan mooy Seydil Hadji Malick pourquoi ma koy jël ñi la daan waxee kan mooy Seydil Hadji Malick yàlla moo fi nekk ak yonentam qaala allahu qaala rasul maa ngi tuub ci li ma juum di jël misaal ci sama baay Seydil Hadji Malick loolu kan moo ko def ci ñi fi ne ñi fi nekk bala ñoo gën a màkk bala ñoo bala ñoo doon li ñu doon rek sama baay nee na ay maa la gën maam sama maam ñëpp nag ñi fi ne koo ci gis maam lay bàkkoo ndax amuñu xam-xam ndax alaaji abdu xam-xam moom dafa tëmb ci xam-xam day géeju xam-xam la soxlawul di jukki ci Seydil Haaji Malick xam na yàlla xam gu wér xam yonent bi xam gu wér xam diina ji xam gu wér goo xam ne bu yëkkatee kàddu bu nee ces ci arab ak ci nu mu ko mënti làkkee day wax wax ju leer day ratatatatat dangay ngay dégg ni ni baat yi toftalante soxlawul di jukki ci alaaji Malick ndax alaaji Malick wu fi du indi indiwu fudara, serintuba wu fi dara touba indi wu fi dara ñom ñëpp dañoy fatali kaddu yalla bi rek ak yow sallallahu alayhi wasallam kon kay mom alaaji abdou bu deme ba xam mom jëru muy jaar ci ñom na tib fa nga xam na fa lañu tibbe ta moy qala allah allahu rasul wax deug wax na ngi cukk di ram di bëtt suñuy bëtt di joy ci jamono bi ñu tok ni di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu dolli ko yermade mu àtte ko ci yërmandeem mu sàmm ruuxam ba ak njàqare ak sikki sàkk du am ci benn yoon ci diggante ak boromam keroog bisu penc yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla yëkkati ci bépp maqaama boo xam ne yàlla dina ko yëkkati ruux bu toog ca barsàq taxaw di xaar ci jëf joo xam ne jëfal na ko humanité man mii gis naa sama bopp ci ak dundam kon maa ngi ñaan yàlla sama kàddu yi yàlla na ko yàlla dëggal barkeel ko te ñeel ko ko moom ci ruuxam boobee ak képp ku mel ne moom koo xam ne tey ma nga barsàq Yusuf Yusuf Kamara, on vous suit depuis la place de la nation jërëjëf yusuf Yusuf Kamara, na la yalla sam yalla fay la deugal nga sa gem yalla deugal nga sa li ngay xeex te mooy xeex ak mbon taxawal li nga xamne moy ak bax ak moy ak njub comme ya nga ci place ba yalla na la yalla fay sha allah ñu kenn ki ñu andal moy ki ñu japp ne mi ngi ci lu deug mi ngi ci lu jup mi ngi ci lo xamne ci gis sama njariñ man man ki may waxal moy ki nga xamne ak dundam man dana am njeexital ci sama dund man ca taxawaayam moo xam mu nekk njiit moo xam lu mënti doon jëf jamiy jëf wax jamiy wax su la ko nattee gis na lii muy def kat du intérêt boppam moom waaye man mii sama intérêt ngi gis sama intérêt njaboote bi kookee maag moom ñoo ànd danaa yëkkati sama kaddu seedeel ko loolu ñaanal ko yàlla mu fay ko ca loolu ak ku mën a doon nag ak fu mën a bokk sama yoon nekku ci li am njariñ mooy dundam nga muy dund moom moomee la mu cay jëf ndax am na njeexital ci sama dund ak yéen ñi may déglu ndax moom mii dundam la mu cay jëf am na njeexital ci lu baax ci seeni dund su amee rek kooku ku baax la nañ ko yëkkati ñaanal ko yàlla bu amul nag nañ ko xarab dañ ko xarab kenn déedéet ay nañ ko ma nañu maandoog dañ baax yooyu ay yëfu tappale la ay yëfu saytaane la yoolu mënoo jiite mbooloo ci turu lan ci turu diine wala nga jiite mbooloo ci turu àdduna yor àdduna bi politique président ngay jëf-jëf su baaxee ñu nañ ko wax su bonee ñu nañ maandu naa fekk ngeen safara ngeen jëm man bu baaxee ma wax ko su bonee ma wax ko man du naa fekk loolu mooy li am 40 ans zéro loolu ñëpp wax de man de li 40 ans yi fekkiwu ma lépp li ma fekk ci 40 ans yi Abdoul Aziz Dabakh loolu moom mën naa ne zéro faute la ko jiitu nag loolu moom mënuma ko seet ndax fekkuma fa ku ñëpp ne nañ 40 ans zéro faute man moom li may seede mooy li ma fekk ci ak dundam teewe ko diko ko déglu gis ko nim dan taxaw waxuma la sax ciriñ ji waye mom ab patriote la won mom alaaji abdou mom patriote la man lima neex ci mom du sax ciriñ lima neex ci mom moy ab patriote dan taxaw ci rewmi lu xew ci rewmi mu yëkkati kaddom xex ci rewmi la bok ci doomi rewmi la bok da ngeen ko dañ dégg mu diko wax waxuma ko ci alaaji maalik ma jur waxuma ko ci may khalifa tidiane waxuma ko ndax abdou aziz la tudd waxuma ko ndax sigi ma sante dama koy wax parce que citoyen la ci rewmi am droit ci rewmi wala yëkkati sama kaddu di wax li ma neex ak li ma naqari ci réew mi aha xoole boobu dimension looloo ma neex ci Alaaji Abdu looloo ma neex ci moom lii may wax nag su koy wax ngeen jàpp ne damay daf leen di naqari téy leen seen i chèque ko ba tey wax ko di li may wax qaala allahu qaala rasulu ku mu naqari téel sab chèque bu ma jox sab chèque seen chèque yëpp mën naa koo muñ seeni i koppar ak seen mën naa muñ lépp waaye qaala allahu qaala rasulu gii su ma ko waree yëkkati naa ko yëkkati de kàddu yàlla gi kenn mënu ma ko tey yëkkati tey leen seen alal tey leen seen i lépp loolu tey kan moo ko ñemee wax fii ñii nga xam ne dañuy toog yor seen i saako toog di rang di di dagale xaalis di takk ay saako xaalis teg ay milliards milliards ñoom ñëpp ay milliardaires lañ xaalis la jaamu ñi fi nekk dañ ko sañ kenn sañu ko ci bëgg xaalis koo ci jox xaalis ma ngay kot koti di lox kot kot ndax yàkkamti koo encaissé te boo jox xaalis na ngay kot koti kot kot kot kot gis lu mel ni ngeen kenn du ko wax nañu naa fekkante rek fuddan ko ah, bàyyil mu sedd am na yoo xam ne xam nga réew mi dañoo aadawoo dégg maam suturante saytaane ngeen sutura amu fi lan mooy sutura sutura mooy maag yeen ñu suturante man xawuma leen la ñu suturante ñun duñu dara te ñu fenn woowuñu kenn duñu njiit mais njiit yi amul sutura imam dafa jafe njiit président baak ministre bañ tabak chef de parti baak sëriñ bi ne man sëriñ la woote ñoom ñëpp ay nit mbooloo lañ mbooloo boo ko jiitee yaa ngi ci place publique bi amatul sutura ak lu na rafet rek bu ñaawee tamit ñëpp dañ koy xam soo bañee ku la teg ci place publique bi tekki sa ndomb tànk yi nga am ci kilifteef kilifa dañu koy càmbar saa su ne bu baaxee ñu tàccu ñaanal ko yàlla su banee ñu xarab ko ndax moo nangu ne day jiite ku bañ ñu xarab la bul jiite seen naafeq googu ngeen nekk man nekkuma ci de yéen ñi may déglu nag yéen ngeen xam ne maa yéen a yem yilifuñu kenn ñun duñu xarabalante ma benn responsabilité ki seen dund yéen amu leen benn wareef ki sama dund ndax yé maa ngi yéen a yem ñun jiite wuñu kenn woote wuñu ne ñoo leen gën maam woote wuñu ne ñoo leen gën a xam yàlla woote wuñu ne ñun ñoo président bi woote wuñu na ñooy ministre yi woote wuñu ne ñun ñoo leen gën a xam ñoo leen gën a man ñoo leen war a jiite xëccoo wuñu jiite man jiite kenn yéen ñi may déglu jiite wu leen kenn ñun duñu xarabante parce que amuñu benn responsabilité l'un vis-à-vis de l'autre man awma benn responsabilité ci amu leen kenn ku ci nekk ci ñun da nga yor sa responsabilité bopp individuelle waaye nag Muntaxa Mbàkke dafa am une responsabilité collective Merci Mansour dafa am une responsabilité collective Macky Sall dafa am une responsabilité collective dañoo am ay wareef yoo xam ne dafa làmb réew mi yëpp ndax dañoo taxawaa taxawaay boo xam ne ñoom ñoo ne ay kilifa lañu nit nag mënoo njaboote nit ba noppi nag ne kenn du la xarab kenn du la càmbar kenn du xool li ngay def baax na wala baaxul su baaxee ñu tàccu ànd ak yow ñaanal la yàlla su bonee ñu xarab la ba ñëpp xam ne lu bon nga fi nekkee ndax njiit du caaxaan ngeen ne kenn du ko wax lu ngeen bëgg li ngeen bëgg ku bañ ñu xarab la bul takk benn ba tànk bul wooye sa bopp kilifa diine bul na si laa sant Mbàkke laa sant wala maay président bi wala képp ko am ndomba tànk ci gouvernement bi wala nga am ndoom ba tànk ci diine ji ndax gouvernement ak diine nit moomu ko gouvernement ak diine gouvernement bi santul sàll santul Wade santul Diouf santul Senghor santul Sonko diine ji santul Mbàkke santul si santul Ñas santul Cawlaay santul sekk Thiénaba santul ba Médina Gounass ñaar yi il faut ngeen xam ko ce de des propriétés collectives dañ koo bokk mbooloo ko moom diine akum réew mbooloo ko moom képp ku ci am ndomba tànk daañu la càmbar saa su ne xool tànk bi ngay teg jëf ji ngay jëf wax ji ngay wax ak lii la war ak li la warul ndax yaa ngi ko def boo ko defee macha allah ñu ñaanal la yàlla ànd ak yow dugal na ci suñu xol yéene la lépp di la di la tiitaroo fu ne comme ni ñu ko defee ci Abdou Aziz Dabakh xawma keneen man xëy na yéen am ngeen man ma gisuma keneen ku ma ko mën a waxal ci moom laa ko gisee ci dimension yëpp laa ko natt càmbar ko sans faute boo ko deful tamit ñu teg la ci ko taabal ji rek comme ni ngi def ñëpp layam-layam jeex na ba Mark Zuckerberg ñëwee internet bi ñëw nit ñi di xam kenn ku nekk toog fii toog di dégg ak Akhenaton di wax ak keneen ak keneen ak keneen keneen c'est terminé ku yebu defaraat sa toogaay jublu penk bu jub mbagg ak mbagg ci julli gi di def lu leer nañ boo ko deful la koy dégg ci saase duñ la may jàmm c'est fini tappale gi day jeex ku bañ ñu waxal la rek toogaatal bu baax defal sa toogaay defal sa jëfin waaye li ngeen nekkee woon démb ak barki démb jeex na takk ku bëgg ñu waxal la rek sa way ku ku bëgg sa way rafet ku bëgg sa way rafet bul bul bul fi nekk du xural baat defaral sa baat dem naa ni lem bu la neexee wala nga naan kaani yaa xam lu defar baat nga defar sa baat ba sa baat neex boo woyee ñu ne macha allah waaye ku fi yor baat bu xuur wala baat bu euh, layam layami da ko dégg da ko dégg da ko dégg góor jigéen war nañoo tooy toog Sénégal ba ay nit yu jiitewul diina ji ñi woote ci xeex diina ji ci xeex góor jigéen gi yëpp duñu ay kilifa diina ñi taxaw tàmm jol seeni dàll di dugg ci kër yi di woote di def conférence de presse di woote pour xeex góor jigéen bi amu ci kenn koo xam ne am nga taalibe kenn du ci kilifa diina au sens où di lekk àdd yee nit ñi yor ay taalibe leen bayloo seen i tool ñoom ñi bayloo taalibe yi seen tool di lekk seen àdd yi ña nga toog seen kër yi kenn du ci génn tey bu ñu doon jihaad fii sabilillahi bu ñu doon jihaad ci diine Muntaxa Mbàkke du génn Mbay Si Mansuur du génn Cerno Madaani Taal du génn Cerno Bachir Taal du génn Duudu Caw ma ca Yoof du génn Cheikh Ahmed Tidiane ba ma ca Medina Gounass di génn Thierno Samassa ma ca kii kenn du ci génn tey bu ñu doon jihaad fii sabilillahi bu yàlla jóge woon ndigal ñu jihaad ñoom ñi kenn du génn comme na sahabatul kiram ya génnee woon keroog bi yàlla joxee ndigal yoon ñëpp dañoo génne xeex dëggal seen bopp tey ñoom ñoo ñee nañu defoon ca jihaad ca ca ca yoon sallallahu alayhi wasallam jihaad tey bu yàlla joxe woon ndigal ñu war a jihaad contre góor jigéen ñi ñoom ñi may wax ni kenn du ci génn kenn du jihaad xalaatuñu ko sax ndax li koy li li tax ma di ko wax mooy lii lu tax Ababacar Mbuub Cheikh Omar Diagne Dame Mbodj mu Xurum Xaax Maxtaar saat ak ñeneen ak man mii ak yéen ñi ak ñun ñëpp lu tax ñun ñu jóg ne dañuy xeex góor jigéen ci réew mi ñu rek ci signé yemuñu rek ci wax waaye dañuy jëf di ko dox di ñaxtu ndax ñun lii ñu def ñun Muntaxa Mbàkke waru ko def Mbay Si Mansour waru ko def ñoom am na lu ñu def bind nañu joxe. foofu lañu war a yam bind rek joxe waaw ñun tamit nañu wax rek noppi ñoom la ñu def muy lu néew bu ñu ko defoon ñun kon tey daañu taxaw fii di dajaloo xeex bi est-ce que da war kenn ku ne danga war a ci nga caa war a def sa lu néew a néew a néew li yàlla bañ yonent bi bañ ko nit boppam bañ ko muy lu yàq àdduna bi di yàq humanité bi ñu war cee wax jëf ci dox ci waslu ci àq manifester ki lépp ñoom sëriñ si ñoo ñoom ñooy kilifa diine yi defuñu ci lu le strict minimum bind rek joxe dañuy xeex góor jigéen bind màngo dem leen acca foofu la ñuy yem duñ ci waxaat leneen kenn du ci xutba kenn du ci wax ci gàmmu Porokhane wala màggalu Porokhane wala gàmmu Tiwaawan kenn du ci wax Mbaye Sy Mansour mas na cee wax benn yoon waaye ba muy wax Antoine Diome la ministre de l'intérieur loolu waxal Aly Ngouille ku wax loolu war ngaa mën a juum aussi xam ne naan Aly Ngouille Ndiaye na fi góor jigéen jóge góor jigéen du Aly Ngouille Ndiaye ko fi jóge en tant que ministre de l'intérieur góor góor jigéen Macky Sall moom moo leen fi jiite mooy seen patron moo nekk ci bopp réew mi moom Macky Sall ci mooy aar góor jigéen ñi yow Mbaye Sy Mansour sooy waxati da ngay yëkkati kàddu ne Macky Sall yow mi jiite réew mi yow Macky Sall yow laa bëgg nga jël ay dogal rapidement góor jigéen bi ñu xeex ko ci réew mu tar yaag mun taxaa Mbàkke def leen conférence de presse ñun leen média yëpp lu tax du ngeen Mbaye Sy Mansour rek Mountakha Mbacké ak ñaari Bachir yi ñaari Bachir ñoom ñoom ñoom ak Macky Sall ñoom benn lañ Bachir bi ci kaw ak Bachir bi ci suuf Mountakha gi Thierno Bachir ñoom ak Macky Sall ñoom ñoom ñoom ne da ko bandum ñoom benn lañ ñoom ñoom ñoom dama leen di tudd rek waaye ñoom xalaatuñu di ñoom fu Macky jëm ñu jëm fa te Macky moom mooy chef góor jigéen ñi ci réew mi moo leen di dooleel mais kenn du ko tudd naan ay Aly Ngouille Ndiaye ki ay ah, Antoine Diome ñooñu ay suqu Macky Sall la ñooñu li Macky bëgg la ñuy def Macky moo fi taxawal ngóor jigéen di ko dooleel laa la wax yéen di ngeen ci wax dama leen laaj seen taalibe yi nekk ci mbedd yi saagaaka akanetoon li ak yéen taalibe yi laay wax Muntaxa Mbàkke bi ngeen gëm ba jàppee ko yàlla ak mbay si maasul mi ngeen gëm ba jàppee leen yàlla ñoom lu tax duñu taxaw joxoñ Macky Sall ne ko nguur jigéen gi yu bëgguñu ko ci réew mi na fi jóge nañ voté loi bi lu tax doom duñu ko def lu tax man ma war koo def Xalif Ababacar Mbuub war koo def Karim Xurum Xaax war koo def daa Mbodj war koo def Cheikh Oumar Diagne war koo def ak ñeneen ak ñeneen ñeneen ñu dekk Makhtar Sarr war ko def lu tax yéen ñi koy def yéen seen kilifa yi ngeen naan ay kilifa diine lañ man du man man du ñu samay kilifa diine man man maay sama kilifa diine bopp man kenn du sama kilifa diine sama diggante yàlla kenn du ko fi ñoom yéen ñi ne yéen ñoo ñooy seen kilifa diine ni ngeen sonnee ci lii lu tax ñoom sonne wuñ ci loolu lu tax dama leen koy laaj lu tax ñoom sonnuñu ci dama leen ab laaj la lan mo nek ci digënté ñom kilifa seen kilifa diiné yi lu nekk seen digënté ak Macky Sall ba amuñu fit ak gëm Yalla go xam ñu mëna a muñ ay sékam comme na Aladji alaaji muñé sama dëgg ji ku mu neexul teel sab sék lutax tax taxa mbacké mbàkke mun ta wax loolu ak mbay si maasu lutax ñom ñoom wuñu Macky Sall ñeme gu toll ñu taxaw tim ko ne eh réew mi kat mag ñi dañ fay liggéey liggéey bu rafet ba gone yi gëm mag ñi te lepp ki diiné lañ ko défalé ak dafa doomu aadama ak jaamu yàlla gu sell ngóor jigéen moom yàlla da koo seppi sànni ci àll ba ngóor jigéen musiba la ci am réew yow Macky Sall dañoo bëgg loi bi criminalisation bi mu jàll ci assemblée bi nu mu gën a gaawe boo ko deful dañuy futteeku xeex ak yow jël suñu taale ba yëpp door ko ci sa kaw mbay si maasu rek mun taxaa ñu ànd la ñaar ñoom ñaar ñoom ñaar juddu wuñu ci murit ak tijaan mbay si maasu rek mun taxaa mbàkke dañoo judd ci ak jullit d'abord juddu wuñu ci ay murit ak tijaan murit ak tijaan du dara boo ko comparee ak islam nekk di jullit ñoom ñaar ñoo ñëw ñooy bokk jublu penk bu fekkee ñu ngi julli ñooy bokk dem màkk bu fekkee ñu ngi dem màkk la leen boole kon mooy loolee màkk ga ak julli ga ak charia bi moo leen boole d' ñuy soog a avant ñuy nekk murite ki xaadira ki tijaane ki laaye nekk yu kenn xamut waaye la leen boole muy jullit gi nga xam ne moom moom la yàlla yónni yoon salaa sallam mu jàngal ñu ko ba ñoom ñu judd ci loolee na leen boole wat tey ba ñu taxaw ngir ngir ngir ngir yàlla bëgg ci yonent bi xeex góor jigéen ñoom ñaar ñu ànd taxaw lu tax mënu ñoo ànd ñoom ñaar xeex li ak ñeneen ñi lu tax mënuñoo ànd ndax ngeen bëggee nekk ci réew mi ne ay jullit ngeen mais bu jullit bu bu l'islam bi soxlaa du ngeen ànd mukk kenn ku ci nekk yaa nga yor sa lislaamu bopp fukki lislaama juróom a nekk ci réew mi moo tax du ngeen mën a am ndam ci li ñuy xeex nii parce que àndul leen du ngeen dëgg wuñu du dëgg murit la la tijaan la layen la salafis la euh, wahabit la kenn ku ci nekk di am foo ñoo di jëm ñoo di leen tasaaroo leen tasaaroo leen xool ba xam lu mu jur xool leen ba lu muy jur ngeen ne kenn du ko wax kenn du ko wax pourquoi lu tax kenn du ko lu tax lu tax kenn du ko wax moom lay laaj ku dugg ci pale bi góor jigéen nga fay seet palais Macky Sall bi ku fa dugg rek dugg nga ci këru góor jigéen li ma leen lu leer nañu leen sucre compagnie sucrière bi ngeen lek sucre si muy compagnie sucrière du Sénégal est-ce nga may deglu compagnie sucrière Sénégal c'est c'est sucre si mu jaay ci réew mi te sucre kana sucre bi mu di defal diko di bitim rew di jaay tuba bi ndax mo gëna cher mo gëna bax indil len sucre betterave sucre su bon so day joxe jabet def ko ci bato bi indi ko Sénégal bu ko indee def ko Sénégal dajj ko def ko ci ay paquetu compagnie sucrière sénégalais jaay leen ko ci boutique yi ngeen yaakaar ne suukaru Sénégal bi ngeen di lekk lekku leen suukaru Sénégal suukaru Sénégal bi moom da koy jaay bitim réew ndax moo ëpp xaalis dem bitim réew génn fa suukar su bon soo xam ne tubaab bi ci betterave bi lañ koy génnee moo gën a mooy cher fuuf ñett yoon ñeent yoon du suukar bu jar dara ndax suukar bu bon la day gaaw a yéeg a jabet ak tension baaxul tubaab bi duñ ko lekk suukar boobu la ñuy jël def ko ci bato yi duy ko indi ko Sénégal bu bato bi yóbbu sukkaru kaan bi sukkar bu baax bi jóge Sénégal bato bi koy yóbbu France bato boobu su dellu si Sénégal di jël si waat sukkar bu baax bi day indaale sukkar bu bon bi nga xam ne ci betteraawu France bi lay jóge ñu indi leen ko ci Sénégal bu ñëwee nag ñu dajj ko ci bato su baaxul dafa nekk sukkar su artificiel dañ ko dugal ay produits chimiques yu bon moo tax gis nga bu ngeen ko suukaree kaasu café bi mën ngeen koy def juróomi bekk suukar te du saf parce que suukar si baaxul mais benn bekk suukar suukar bu baax benn bekk suukar ko defee ci kaasu café kaasu café bi ñu nekk Europe xam ngeen suukar bu baax bi benn bekk suukar boo ko defee ci kaasu kafe café ba day saf sàpp lu tax yéen bekk ñeent juróomi bekk ci kaas pour mu saf parce que suukar bi baaxul dafa am produit chimique yu nekk ci biir ni mu laa jaay leen suukar bu baax suukar bu baax bi nga xam ne benn bekk bi boo ko defee ci café bi mu saf suukar boobu France la koy jaayee ak Europe du ko jaay Sénégal est-ce que xam ngeen loolu Mimra moomu ci góor jigéen ñi la bokk Mimra moomu ci goor jigéen ñi la bokk njaaja Ndiaye mi nga xam ne moom moo jàppale Macky Sall ba ñu tabax stade bii ngeen di inauguré ji gannaaw suba stade boobu ngeen di tiitaroo Ndiadia Ndiaye moo nekk ci gannaaw bu Knos Ndiadia Ndiaye góor jigéen bu mag la ma xamal leen ko tey ñoo dem laxas seen i laxas ak góor jigéen ñeeg naari góor jigéen ñu dem lebi 155 milliards ñoo tabaxal leen stade pour lan pour ngeen po fo góor jigéen ñi ngi yàq seen jikko yi coupe bi fo la stade bi lépp fo Ndiadia góor jigéen bu mag a mag noonu Njaaña Njaay ñoo ak ñoo ma koy ànd moo tax ku dugg ci pale bi góor jigéen nga fa fekk ku mu recevoir rek góor jigéen moo la recevoir Njaaña Njaay góor jigéen Mimran góor jigéen Mimran moobu ñoom ñoo nekk actionnaire ci banque CBAO bii nga xam ne ñoo ne léegi guichet unique bi dañ ko yindi amatul guichet unique guichet unique mooy lan mooy léegi su ma la defalee chèque gu segu chèque gu CBAO agence boo dem ci CBAO Sénégal ñu fay la ko mooy guichet unique guichet unique mooy boo amee compte ci agence bi mën ngaa dem ci beneen agence Sabayawoo nga retiré fa xaalis tant que am nga xaalis ci compte léegi nee loolu dañ koy bàyyi léegi kenn ku ci nekk agence ba nga ubbee sa compte foofu ngay amee foofu ngay retiré buñ mën ngaa retiré du weesu 200000 ñeent fukk junni rek nga mën ci beneen agence bu bokkul ak agence bi nga ubbee compte bi soo bëggee jël 250000 mënoo koo jëlati ci benn agence Sabayawoo bu dul fa nga ubbee sa compte bi léegi loolu la ñuy imposer moom Sabayawoo nee nañ léegi bu ma la defalee check yow nga ñëw seet si ma ma may la chèque CBAO chèque bu CBAO boobu su ma la ko joxee bu njëkk mën ngaa dem ci banque CBAO bu nekk ci Sénégal ñu jox la xaalis léegi mënatuloo nekk su ma la joxee chèque bu CBAO signé la ko may la ko nga bëgg koo touché nga bëgg a encaissé chèque bi fi ma am compte ca banque ba boo nekkee Tamba ma jox la chèque bi fekk sama compte nekk dakaar da ngay taal sa oto jóge Tamba ñëw ba dakaar ci sama agence bi ma moom compte bi nga dem foofu ñu fay la foofu lañ lay fayee kenn du la fayee Tamba <laughs> sebe yaayoo ba nekk Tamba kenn du fa fay loolu lañ ne léegi moom moo jeex ci réew mi sebe yaayoo googu nag Mimran ak buuru Maroc bi ñoo ko bokk te ñoom ñaan ñëpp ay góor jigéen lañ ak Macky Sall Mimran Jean Claude Mimran bu compagnie sucrière sénégalaise bi leen jaay sukkar su bon si jël sukkar su baax si yóbbu tubaab ak Macky Sall ak buuru Maroc bi Macky Sall la ngi tabax kër gu rëy Maroc Casablanca quartier Bour quartier euh, euh, euh, Bourguignon comment quartier bourguignon bi nekk biir biir Casablanca ci wetu géej gi Macky nga fay tabax ab château Ahmed Khalifa Niass moo yor liggéey bi moo koy liggéeyal Macky Sall ñoo bokk ñoo bokk même connexion bi góor jigéen ñi Ahmed Khalifa Niass Macky Sall Jean Claude Ñaaña Ndiaye buuru Maroc bi roi du bi ñoom ñëpp ay góor jigéen ñoom ñoo moom sama gi ñoo ko moom boycotté leen sama yaawoo bi ngeen jógee ci manifestation bi li ma bëgg di ko wóor naa ci defar ay live yéen ñëpp ngeen ko daa leen wax li góor jigéen ñan ñooy góor jigéen ci réew mi ak lan mooy seen i alal ngeen boycotté ko ab jullit wut te lekk alal juy jóge ci koo xam ne ay góor jigéen lañ ñu boycotté seen produit yëpp Auchan ñi ko moom ñëpp ay góor jigéen lañ boycotté Auchan boycotté Total boycotté di nga maam Sebeyaawo yooyu yëpp ay banque góor jigéen lañ li ma leen wax lu leer naññ la. diwlin ji noonu la tamit diwlin ji c'est la même chose pour l'huile diwlin ji xool li ngeen di béy gerte par at xool Sénégal gépp ay béykatu gerte lañ li ñu yor ci gerte ju jeex moitié bi chinois yoo ko jënd yóbbu ko siin beneen moitié bi Sonacos a koy jënd bu ko Sonacos jëndee da koy defar def ci diwlin diwlin bi Sonacos yi defar yéen du ngeen ko lekk diwlinu gerte bi nga xam ne mooy diw gi gën ci àdduna bi diw gerte moom la tubaab bi di wër bu ko Sonacos defaree ki si gerte gi ngeen di bay yéen béykat yi da koy def ci ay bato yóbbu ko bitim réew jaayi ko fa bato bi ko yóbbu bitim réew di ko jaayi muy diwu gerte gu baax gi buy dellu si Sénégal day indaale diw goo xam ne diwu tournesol lay nekk diw yu kenn xamul colza diw yu bon yoo xam ne diw yooyu tubaab bi defaruñ ko ngir mën a russi tubaab bi dañ ko defar pour assaisonnement dañ ko defar pour defar salade pour pour pour pour loo xam ne diw yooyu du kenn waru ko tàngal wërto sens diw la yoo xam ne kenn du ko tàngal du dem ci du dem ci safara ndax bu tàngee bu tàngee du yooyu dafay joxe cancer te yéen xam nga Sénégal ni ngeen di lekkee mooy da ngeen di diwlin moom da ngeen koy tàngal ba mu tàng ngeen sotti ci yàpp wala ngeen def ci jën wala ngeen def ci géej wala yéen xam lu ngeen ki mais yéen lépp da ngeen koy russi te bala ngeen ko russi da ngeen koy tàngal ba mu am yenn température yu tàng jëpp jëpp ba boo ko ci sottee nga dégg mu naan cus di tëb di dal gis ngeen cus googu mooy joxe cancer gi ak seen tension yi seen hypertension yi seen cancer yi mi ngi jóge ci diw gu bon googu jóge ci dëkk tubaab bi nga xam ne tubaab bi ñoom du ñu ko tàngal mukk tubaab yi diw yooyu mayonnaise lañ ciy defar wala ñu defar salaat def ko ci kaw sotti ci tuuti diw wala yu mel noonu mais du ñu ko tàngal comme ni ngeen koy tàngalee diw yooyu parce que day joxe feebar yu bon li leen rey yépp ci diw yooyu la jóge dégg nga loolu loolu Macky leen ko wax télévision RTS du leen ko wax benn tele ci réew mi du leen jàngal xamal leen hygiène alimentaire naka ngeen war a dundee nu ngeen war a lekke naka ngeen war a togge lan moo baax ci li ngeen di lekk ak lu ci bon kenn du leen ko wax noonu la demee ki diw gi diw gu bon gi la ñu jëlee tugal indi jox leen ko ngeen sansal ko ki seen ci nii di ko togg moo tax yéen ñëpp a feebar insuffisance rénale kon diabète hypertension Euh, dégg nga maam euh, cancer du seen feebar yëpp mi ngi jóge ci suukar ak diwlin yi ngeen lekk suukar ak diw moo leen jàpp yéen Sénégal suukar ak diw ndax ni ngi al il faut ngeen sopp ni ngeen di toggee bàyyi rosi diw kenn du ko sansal bàyyi leen rosi Sénégalais yi bàyyi leen rosi ñoom ñoo nekk ci ginnaaw ñoom ñëpp benn lañu góor jigéen ñi daañu leen rey ba ngeen dee waaye jimbo bi ngeen di lekk jimbo bi nga xam ne mi ngi jóge ci patisen patisen xam ngeen patisen Omaïs naar bi moom Patisen Omaïs góor jigéen la man maa leen wax la amul jabar moom ci góor jigéen yu njëkk yi la bokk góor jigéen yu mañankase yi moom Patisen naar bi ko moom Omaïs frère am moom Omaïs frère am conseiller spécial Macky Sall la mooy ki nga xam ne moo représenté naaru libanais yi Sénégal lobby bi kooku mooy patron bi moom conseiller spécial Macky Sall 4 4 bu 8 8 la ko jox bu jar 90 millions di ko fay xaalis chaque nga xam ne góor jigéen la. est-ce que yéen a ngi dégg li may wax palais bi palais góor jigéen la palais bi parce que ki ko jiite góor jigéen la ñi fay dugg ñëpp ay góor jigéen lañ ki dëkk buñ ne Alaaji Malik fa la dëkk dëkk buñ ne fa la Serigne Touba dëkk dëkk buñ ne ñii ay murit lañu ki ay xaadare ki ay tijaane ki ay layen ngeen ki leen jiite nekk ci biir góor jigéen ñi ngeen taxaw di layam layam ca rosi ba la ca cus ba la gis nga cus cus boobee ca rosi ba mooy li nekk ci seen biir yaram yi di leen rey ngeen tëdd ci hôpital yi koo ci gis mu tëdd ci hôpital di layam layame di waage dee di sukuraat ca rosi ba la ca cus ba la ku ci moytuwul cusub rosi ba yaa nga dem bàq ya ñu tëdd bàq ya ñëpp ca cusub rosi ba la ñu tëdd bàq ya ca cusub rosi ba la laa la wax moom li may wax du la may wax jëlu muus la ku ku weddi nga wàqi ngeen gëstu lin en poudre yi waxale wuñ ko dina ci ñew legi waye omayes bi pati patisen di len jaay jimbo ki aja ki saf-safale ki yoy yu bon yoy ngeen di lek bu ngeen ko wul yeen ñepp da ngeen manam 50 ans 60 ans ñu suuli len sen lek sen lek li ngeen di senegal da ngeen di lekkee baaxut sen alimentation baaxut moytu len jimbo yeeg saf-safal yeeg yi yii yëpp musiba la man nga togg ba togg bi nopi do ko def jimbo mag ñi dañ daan togg waa ndar ñoo dàqoon a togg ceeb ñëpp ndar ceebum ndar ñëpp xam nañ ko waaye ndar xamuñu lu jimbo xorom la ñuy def ak daqaare ki bisaab yu naturel lañ daan toggee ba mu saf sàpp togg ba mu neex dégg nga defar ba mu baax te te te maam euh, kii lii du ca dem jimbo du ca dem dara am nañu daqaar am nañu bisaab am nañu géej ju koŋ wala géej ju bër gu baax yooyu yëpp boo ko boolee assaisonné ko dangay ngay am assaisonnement bu neex nga togg sa ceeb bu neex te doo ci def jimboo ko yooyu yu bon yi kañ ngeen di nekk ay nit kañ tamaate bi ñuy wax tamit tamaate bi ñuy bay ca seen ca seen yu tamaate bi tamaate bi jóge Ndar du tamaate bi ngeen lekk de jéeg bu jar bi ngeen gis rek concentré bi tamaate boobu dañ koy importé Chine lay jóge tamaate bu bon bi la ci ay bërigo lay ñëw en vrac ci bato yi jarul dara ak Italie tamaate bi ngeen di lekk Sénégal du tamaate bu baax bi jeeg bu jar bi gis ngeen ni mu xawee mel ne lu xuur lu xumaak lëndëm tamaate bi gis yéen ñi nekk Europe gis ngeen tamaate Europe ni muy mel tamaate tamaate concentré Europe gis ngeen ko gis ngeen tomate bu concentré Europe ngeen ji boole ko ngeen comparé ko ak tomate concentre bu Sénégal jeeg bu jar bi ngeen xool couleur yi couleur yi est-ce que mas ngeen ko def yéen yéen ñi nekk Europe ak Occident est-ce que est-ce que ngeen ñaari tomate concentré gis ngeen couleur yi voilà mais dafa mel ni lu ñuul lu dafay dafa mel lu yàqu parce que dañ cey def ay produits chimiques yu ban moo koy moo mooy tax mu nekk tomate dañ cee yokk ay du tomate pure dafa am purée bu ñu ci def am ay produits yu ñu ci def lu mel ne tomate ay purée yu ñu ci yoo xam ne dañ ko defar artificiellement def ci ay produits chimiques yu ban def ko ci biir tamaate bi ñu prix bi wàññeeku moom la ñuy indi Sénégal ay tonni tonni tonni ton tamaate def ko ci ay pot emballé ko bind ci Sénégal di bind ci bu jar ndax lan ñoom dañoo signé ak état Sénégal ñu jox leen suuf ñu ne dañuy bay tamaate bu ñu bayee tamaate tamaate boobu ci la ñu war a dund pour autosuffisance alimentaire état bi baal leen ay taxes ay milliards duñu ko fay jox leen ay suuf jox leen ndox mi ñu wàññi lépp am ay taxes ay milliards yoo xam ne dafa waroon dugg ci suñu kees duñ dugg ndax lan dañ ne loolu lañ lay état état bàyyi leen ñu bay suñu bayee ba noppi mbay mu baax moomee tamaate boobee ñu jël ko def ko ci ay bato dem jaayi ko tubaab yi ndax tubaab yi ñoom lu baax la ñuy lekk du ñu ay làppato foofu la a baaxee dem nag dëkk tubaab yi nga xam ne am na tomate boo xam ne moitié tomate la ak moitié kenn xamuñu dugal ko ci ci ay yu bon a bon a bon a bon jëggaani boobu indi ko bu ñu ko indee tas ko def ko ci ay pot ci ay pot bind ci jeeg bu jar bind dessiné ci ab jigéenu sénégalais mu yenub ab leget ngeen yaakaar ne tomate bi ñuy bay ci réew mi ngeen di lekk fekk tomate bu bon bay jógee Chine day jóge ci dëkk yi àll yi nga xam ne du tomate bu baax moom ngeen di lekk ci biir pot yi comme ni ma leen waxoonoon noonee aussi ci suukar bu bon bi ni muy ñëwee noonu Sénégal gépp noonu ngeen di dunde yéen ñëpp meew mi nag waxantuma wax waxaale wu ma ko meew mi Union européenne dafa subventionné meew baykat sàmmkat bu nekk Europe Union européenne daf lay jox xaalis di la ko dimbalee ngir nga mën a mën a dund ci li ngay liggéey te mooy meew mi li ñuy defar ci meew Europe dafa bari seen nag yi benn nag bu nekk di dana génne lu mu néew néew néew ñaar fukki litre ak juróom wala fanweeri litre par meew par bis seen nag yi Europe ndax lekk ga li dañ leen di engrais dañ leen jox lekk ñuy lekk lekk bu baax ñax mu baax leen jox mboq di leen jox ñu lekk ñu leen di faj nag yi seen nag yi dañoo am meew meew mi dafa bari léegi meew mi bi mu baree li ñuy produire ci meew dafa bari Europe léegi dafa am léegi meew mi su baree prix bi day wàcc <clears throat> ndax grande surface yi Auchan ki Carrefour gi ñoom dañoo am centrale boo xam ne dañu ko taxawal centrale boobu ñoom ñoo fa def seen alal coopérative ñoom ñoo jënd meew mi ci sàmm yi buñ sàmm bi bu defaree meewam da ko jaay coopérative bi moo jënd meew mi léegi coopérative mooy fixé prix bi moo naan man meew mi nii laa ko jëndee comme Sonacos rek bu béykat yi bayee ba noonu Sonacos moo naan gerte gi lii nii laa ko jëndee wax ko état état fixé prix yi ne 200 francs wala 250 kilo gerte bi amoo pexe foo ko jaayee ji feneen amoo fenn foo ko wax xanaa jaay ko chinois yi quatre cent et quelque te jaay ko chinois ñu yóbbu ko suñu gënul noonu la amee union fii coopérative bi ma ñëw ci jaay jaaykatu meew bi ne ko ñun meew bi litre bi ñu ngi koy jëndee cinquante centimes wala quarante centimes lañ koy jëndee euro comme meew mi dafa bari te boo ko jëncee mu yàqu amoo foo ko def da ngay mujj jaay leen ko jaay boobu nga leen ko jaay rek mënul tax nga mën a dund mënoo cee xont sa jur mënoo cee dund ñoom dañuy ñaxtu nag ñaxtu googu ñu doon ñaxtu nag ñoom seen liggéey mënatuñ cee dund ci ci la Union européenne jóg ne léegi yéen ñi nga xam ne da ngeen di jaay meew te meew mi mënu leen cee dundu ndax ci prix yi dafa cëkk te li tax prix yi cëkk mooy meew mi dafa bari léegi quantité meew bu ngeen produire bu ngeen ci bu ngeen ko jaayee litre bu nekk ñun union européenne daan leen subventionné daan leen ci jox temps pour ngeen mën a compléter li ngeen xam ne moom ngeen ñàkk ci njëgu meew mi ngeen ngeen mën a dudd dañu am subvention dégg ngeen coopérative bi moom mooy fixé bi moo koy jëndal grande surface yi Carrefour ñi jaay meew ci supermarché yëpp ak société yi nga xam ne dañuy utiliser meew di defal ay beurre et levure beurre président ñiy defal beurre ñoom ñëpp coopérative boobu lañ bokk ñoom ñooy jënd meew léegi bu ko coopérative bi jëndee ba noppi société yi nga xam ne ñoo bokk ci coopérative bi ñoom itam dañuy dem jëndaat meew mi ci coopérative bi ci njëg goo xam ne day yomb ci ñoom yóbbu ko ci seen usine ya defal ci beurre defal ci fromage defal ci dégg nga maam euh, meew defal ci meew entier defal ci yaourt comme daanoon Nestlé defal ci yaourt lépp loo xam ne dafa làmboo meew rek ci meew moom lay jóge ñoom dañ ko ci defar léegi buñ ko ci defaree ba noppi nag meew mi dafa am lu ñu tuddee dax dafa am niiw ñi xam kajoor kajoor xam ngeen niw niw ak dax dax bi moom lañuy defaree beurre niw bi moom la ñuy defaree crème fraîche crème fraîche mooy niw bi mooy mooy li nga xam ne mooy niin nekk ci kaw ñaari façon niin dafa am niinu dax ak niinu niinu niinu euh, nu mu tuddee sax wax naa ko sànq dafa am ñaari façon niin niinaayu dax bi moom la defaree moom la defaree beurre beeg yooyu waaye dafa am nii naa yu naa yu wax naa ko sànq dama koo fàtte dañ koy tonni nag bu ñu woyalee soow mi dañ koy tonni bu ñu koy tonni nag ñu tonni loolu pour defar beurre boobu mooy benn étape bi benn étape bi mooy meew mi ci boppam dafa am lu ñu tuddee crème crème mooy dax bi mooy niinaay bi mooy li ci niin mooy li nga xam ne xam nga meew bu meew mu ngeen gis rek. boo jëlee sa loxo nga def ko nga dugg ci biir meew mi boo demee raxasu ci ci robinet bi da ngay gis sa da ngay gis sa loxo dafa niin meew dafa niin dafa am dafa dafa am huile bu nekk dafa am matière grasse bu nekk ci meew mi loolu mooy crème bi dafa am crème moo tax mu niin tubaab bi dañuy tonni crème bi dañuy écrémer meew mi yéen ñi nekk Europe xam ngeen meew écrémer meew boo xam ne c'est du du du du du du du meew entier meew naturel meew naturel entier day am dax day am crème ci biir day léegi tubaab bi day tonni nii naay bi moom nañ tuddee crème bi day génne crème bi bàyyi fa lait écrémé bi dégg nga de bu ñu ko ngaccee ngacc li baax ci meew mi yëpp dañ koy génn am yeneen produit dafa ci beurre dafa ci fromage dafa ci yu bare baree bare bari yoo xam ne meew mi après la koy des day weex noonu rek tudd meew waaye nekkatul meew ndax bu ñuy wax meew ferñeent yi nekk ci meew mi vitamine yeeg yi nekk vitamine D yi nga xam ne mu nekk ci meew mi loolu lépp tonni nañ ko ba ñu ko tonnee defar ci yenn yenn yu baax nag léegi bàyyi la fi kópp mi kópp mi kàcc bi kàccu meew bi léegi moo fi des weex na nuru na meew nga xool sotti ko mu nuru meew am tuuti cafka meew nga yaakaar na meew la mais nekkatul meew parce que la ca baaxoon ci njëriñ tonni nañ ko mooy dax baak niiw baak niiw niiw laa doon wax niiw niiw mooy écrème di wax loolu nag la tubaab bi jël yóbbu ko Afrique waaye bala koo yóbbu Afrique dañ koy def en poudre dañu koy transformer def ko lait en poudre mooy meewu poudre yi ngeen di lekk nii meewu poudre yooyu nag comme amatul nii amatul dax amatul niiw niinaay bi ak crème amatul crème tubaab bi day dem Asie jënd fa huile de palme huile de palme mooy diwtiir niinaay bi nekk ci diwtiir bi dax daxu diwtiir bi la tubaab bi dem jënd indi ko dugal ko ci seen laboratoire chimique yi fexe ba dindi xet beeg dindi lépp ba nga xam ne day am nii naa yu diwtiir bi bu ko amee nag nii naa yu diwtiir boobu lay jël léegi boole ko kàccu meew bi desoon ci meew bi nga xam ne amatul woon njëriñ boole ko pour mu niinal ko léegi moom lañ tuddee la graisse animale la graisse végétale mooy nii naay bi nekk ci diwtiir bi moom la tubaab bi jël togg ko defar ko ba nga xam ne am xet ba nekk graisse mu boole ko meew mi nga xam ne tonn na la ca baax yépp ba meewam kese fa des mu amul njëriñ mu boole ko nag pour defaat ci graisse pour graisser waat ko mu am mu am mu niin mu amaat crème mais crème végétale lay nekk boo xam ne si euh, diwtiir lay jóge ñu def ko ci ay saako def ko en poudre nag yóbbu ko Afrique dem jaayi leen ko lekk bu bon tubaab bi duñ lekk lool de tubaab bi xalaatuñu ko meew même ñoom seen meew bi nekk fii en France amul graisse végétale dañ parce que dañ koy contrôler am nañu laboratoire fi mais dañ koy yóbbu Afrique muy ay tonnes milliards de tonnes yu ñu wàcc Afrique am lu ñëw Sénégal meew poudre yi ngeen di xëy di ko ndekkee mo xam bu sédikoo la mo xam bu de la xam bu barale Mais il y yu joxe fièvre cancer ak tension la benn du c'est du lait écrémé en France enrichi à l'huile végétale muy que ma leen wax ni ban télé mo leen ko massa wax li may wax ni ban télé ngeen massa japp Sénégal mo wax ko Ndour fecc leen way Elias Ndiaye Macky Sall lay liggéey Mbaye Sy Mansour musul leen wax li muntaha Mbacké musul leen wax lima li ma leen wax ni li ma leen wax nii wax leen ma fan ngeen ko mës dégg ak Sénégal ci ban télé wala ci ban wala ci ban magal wala ci ban Cheikh Béthio Thioune wala ci ban fan ngeen mës tok mbolo dajé fa ñu leen di wax seen dund gi baxul ni ngeen ko wara a ni ngeen wara dundé li mo bax ci yeen li baaxul ci yeen est-ce que yeen ñi ngeen gëm top leen muy Macky Sall ki muntaha ki Mbaye Sy Mansour est-ce que ñom amal nañ leen njariñ ci seen dund est-ce que ñi ngi leen yé ngir seen dund yell ngeen dundu dundu gu sel waaw wala diet, dama leen di laaj damay laaj waa nit naka la mën a toppee wala mu gëm lu ko amulu jariñ naka ngeen mën a toppee nit ñoo xam ne amuñu xam-xam ci seen dund amuñu xam-xam ci seen àllaaxira naka ngeen leen mën a gëmee teg leen foo xam ne lii ma leen di wax man ngeen ko jëlee ci man mënu leen koo am ci ñoom te man néew ma na ma kenn topp man du ma sëriñu kenn du ma professeur kenn du ma président wu kenn damaa bokk ci réew mi li ma xam ma di ko yebbe teg ko ci ëtt bi ngir ñu ànd jariñoo yëri fu ma utuma ay je cherche pas à être le kilifa de kenn ci citoyenneté lay dox ak ci patriotisme lépp lu leen dal ci hôpital bi ak ordonnance ñu ngi ci lekk gi ngeen lekk lekk gi ngay lekk mooy sa wér-gu-yaram kéem boo maîtriser li ngay lekk kéem boo xamee li ngay lekk lu mu doon kéem sa wér-gu-yaram ci lay aju damay laaj li ma leen di wax bu fekkente ne am na feneen fu ngeen koy déggee mieux ngeen bàyyi ma dem déglu ko foofu man ma noppalu su ma sañoon ñëpp di ko wax lii may wax su ma sañoon ku ne di ko wax su sañoon am na ñu ko xam lii na ñu ko ko wax su ma sañoon ñuy def na man su ma ko waxee fii ñoom ñu wax ko fee kenn ku nekk di wax su ma sañoon lii Muntaxa Mbàkke Poroxaan mu toog di ko fa def gàmm goo xam ne tey dañoo gàmm si Poroxaan temu mu gàmm gi tey ci dund lañ koy aj te mu gi tey nekkul ay maam jaare bus bu nekk même ça fait trente cinquante ans bés bu nekk même discours nañ changé discours gàmmi ren ci dund gi la ñuy wax te tey gàmm gi gàmm gi gouvernement bu ñëwee tey ci dund gi la ñuy wax lekk gi poroxaan ñu ne gàmm ñu ne tey ci wér-gu-yaram la ñuy wax mun taxaa toog ñu woo médecin temu gàmm gi wala temu màggal gi ci wér-gu-yaramu askan wi la ñuy wax aha su boobaa nag ma ne waaw góore waaye ànd ak yéen su amaatee feneen fuy gàmm wala màggal ñu ne a ah fii kat ci suuf si la ñuy wax gàmm gi thème bi ci dëkkuwaay nit ñi naka lañ mën amee dëkkuwaay keneen jël ah gàmm gi thème bi tey ci njàng mi la ñuy wax ah da ko mës a dégg da ngeen mës a dem ci gàmm ba dégg fa ñuy wax yii te yéen lii moo leen yitteel bés ci lii ngeen dund seen dund mooy wér gi yaram seen dund mooy liggéey emploi wala nga teg gàmm ñu ne ah tey gàmm kat bi gàmm gi ci emploi ci xëy liggéeyi ndaw ñi la ñuy wax naka la ñuy def ba ndaw ñu am xëy ni muy amee ni ma ko bëggee ci gàmmu yeeg màggal yeeg cant yi noonu laa ko bëggee ci biir ci ci biir jumaa yi ci xutba yi ci ci biir jumaa yi Tuubaa ak Tiwaawan ak fépp xutba yi ah imaam bi xutba na gëstu ba xam fu réew mi toll ci wàllu utum xëyum gone yi ñu def ci ay débat ci biir jumaa yi nit ñi xam ajjuma yi ñu nodd ko ñëpp dégg benn ajuma ñu jël ci wàllu mbay mi mbaykat yi nekk ci àll bi taalibe yi yéen taalibe yi yéen doomu làppato yi taalibe yi yéen yéen yéen làppato yi ñu leen xutbaal mbay mi fu mu toll engrais beeg nu ñuy def ba suqali mbay yéen ñi nga xam ne bu leen ubbi robinet bi ndox mi du ñëw ndox mi ndox jullit ngeen na leen ndox jullit yéen xanaa du ngeen jàpp nu ngeen a jullee bu ubbi robinet ndox du ñëw ndakaaru mënu leen am ndox nañ ci xutba ci jàkk yi tant yi màggal yeeg gàmm yeeg ngénte yi ngeen samp rajo bi te wàññi Wally Seck géeg Youssou Ndour gi dañ leen di nax pecc meeg foo meeg TikTok beeg Wally Seck El Hadj Ndiaye tant que yéen a ngi xool télé yooyu seen bëtu ndox yi mooy tuuri seen baatin di yàqu ngeen dee tàbbi safara ñu leen wax mukk leen njëriñ li ma leen di wax nii fekkee am nga feneen fu ngeen koy dégg ngeen dem fa te ngeen wax ma foofu fan la man ma ñëw ànd ak yéen ñu dem di déglu ñooñee ndax wax ji dafa metti su amee man ak yéen ñu dem foofee déglu ko waaw du neex wax gi du neex lu tax mooy parce que dañoo am ay jafe-jafe te jafe-jafe yi li koy saafara mooy dëgg wax dëgg teg baaraam ci mbir yi mais du layam layam ak sa wax gi dafa tàng ak ni nga koy waxee woon surtout kilifa diine yeeg waa kër yooyu yéen ñi ma koy wax ñëpp dama lay di déglu. wax leen suturaal leen ngeen wax ma wax ju neex waaye mu mënu leen ma changé loo benn virgule ci sama position bi ma am te mooy li ma xalaat dinaa ko wax mu neex mu naqari mu neex leen mu naqari leen ndax li leen di jëriñ mooy leen naqari yéen ñi may déglu sama wax ji mu naqari leen loolu moo leen di jëriñ li may wax wax déggu leen ma fi ma wax leen lu jëm sama jëmm ji de wax waxulu ma sama bopp de li may wax yëpp yéen la ci yéen yéen seen njëriñ ci laa ne li may wax yëpp pour yéen di kon bu leen naqaree man lu may wàññi jamono dina ñëw ngeen xam ne li ma leen wax dëgg la jamono moo may jox dëgg ci yéen yéen ñi may déglu ba noppi di ci am naqar jamono moo ma leen di wan yéen nañ leen dund rek dem. du ko dégg fenn li may wax sama baat ca kaw lii may wax ni du ngeen ko dégg ci benn ëtt wër leen Sénégal gépp dem ci diaspora bi kër Serigne Touba kër El Hadj Malick dem leen fépp. li may wax fi daal wax du ngeen ko dégg ci benn jàkk du ngeen ko dégg ci benn ëttu ko dégg ci benn tànt politicien du ko dégg ci benn gàmm du ngeen ko dégg ci benn télé li may wax nii man buñ ma doon invité ci télé yi balaa maa def ñaari weer télé yi gépp soppiku su ma doon dem ci télé yi te duñ ma changé ñu bàyyi ma may wax sama xalaat ñoom ñëpp ñu am fit ma toog ci télé ñu toog ñaari weer ma soppi Sénégal gépp Sénégal gépp xam li xew télé yi ñaari weer su ma ko wax télé Macky Sall wàcc sëriñ fépp daañu defaraat seen toogaay wala taalibe yi bàyyi leen moo tax duñ ma jox télé yi man kenn du ma yóbbu ci télé xalaatuñ ko ku ko def xam nañu ko jéem dañ may daw ñoom ñëpp télé yeeg même sama xarit yi def yenn média yi organisé dañ may daw kenn yii yow moom bu ñu yow da nga yàq affaire yow yow koy taxawal nee rek yow yii dañ may yël ci suuf de am nañoo man ci suuf de waaye ci kaw dañuy làqatu taxaw fële li ma am ci ñu ànd ak man ci sama wax ji du jeex ci Tuuba ci waaw nag Canaba ak fepp wallahi lazim waaye ci suuf rek ndax lan boo ko yëkkatee ci kaw rek ñu tam la dëmm comme man ni ngeen may tam la dëmm rek ñu baree baree baree gi ànd ak man ci suuf ma xam ko ñoom ñu xam ko ñu ngi may déglu bu baax baax a di jokkoo ak man suuf waaye nag bu ko yëkkati ci kaw ndax réew mi dafa am nu mu tëddee doomi làppato yi boo ko yëkkati ci kaw di la saaga tam la dëmm mais man comme damaa xam doomi làppato yi man man ba ñu ma ma saaga ku ma tam dëmm du ma tee wax mili millions sénégalais yi nekk ci suuf di ma déglu les millions de yi ànd ak man suuf ñoo may poussé may continuer di wax loolu mooy li am mën nañoo nekk 17 million de population sénégalaise benn nit la ci yàlla def mu am fitu ak taxaw di wax loo xam ne keneen du ko wax ci réew mi mais dañoo feebar te li nit kooku li muy wax su fekkente ne yéen ñi koy déglu ay nit ngeen ñu ami xel ngeen parce que jàpp naa ne man képp ku may déglu rek bokkoo ci doomi làppato yi man képp kuy teewlu samay wax di ma déglu rek am na lu yàlla def ci yow nga xam ko nga ñàkk koo xam man man ku may déglu kuy topp samay wax di ma déglu lu nekk ci yow moo xam nga xam ko moo xam nga ñàkk koo xam ndax samay wax neexut a dégg ndax day tàng tàngoor yu nekkul ci kàllaamay tàngoor gi mi ngi ci dëgg gi samay wax tàngoor yoo ma nga ca dëgg gi doo ko mën a seppi man li may naa ko nekk ci réew mi ñëpp a xeeb ko mën a sempi ndax danaa ko natt xool ko xool ko sama diggante sama borom xool ko sama tëraayu bàmmeel xool ko ci ni ko yàlla bëggee xool ko ci lépp soo koy samp su ma ko waxee bala nga koo sempi sa ndiggee dem mën nga maa xas nag yàq ma lu ne waaye doo ko simpi de simpi ko teg fi loo xam ne mooy gën a wér li may wax gisu gisu je défie tout le monde. nañ ma jox télé yi nañu ma ubbil télé yi wàññil ma tuuti Youssou Ndour ak Wally Seck ak ñooñu rek ñaari weer ñetti weer ñoom ñëpp ñun bu kenn concerne ñu bàyyi maag télé yi ak sénégalais yi nañu ko def xalaatuñu kon dañ leen nax dañu leen di nax moo tax ma ne leen fay leen tele yi bàyyi leen tele yeeg rajo yi fay leen tele yeeg rajo yi wax naa leen ko ba tàyyi wax gi nag wax ji oyof la ci ku amulum xel waaye képp ku am xel am lu yàlla def ci yow tuuti nga am dox seetlu mën a réfléchir tuuti soo déggee ma ne la bàyyil tele yi war ngaa xam li tax ma wax lekk la des nag yow yaa koy xam parce que nit ki tamit doo ko jox lépp doo ko wax lépp danga nga koy junj rek mu xam bàyyi leen télé yi bàyyi leen télé yi bàyyi leen télé lu tubaab sàkk ci àdduna seytaane iblis dajjal li mu sàkk ci àdduna li gën a garaaw ci li mu sàkk lépp lépp lépp lépp mooy télé gis nga télé télé mooy mooy télé mooy dajjal télé mooy li gën a garaaw ci li seytaane sàkk ci adduna télé mooy li gën a garaaw ndax boo ko seytaan sa nopp bi day jël sa bët bi di jël sa xel mi jël sa ruugi di jël sa lépp jël sa sens yëpp sa sens sa chakra yi sa cinq chakra yëppay jël en même temps bu ci nekk day alimenté wu négativement des énergies yu negative yoo xam ne day yàq sa baatin sa baatin mooy dem ba lëndëm te nit bu baatinam lëndëmee mënatu la ñaan nit su baatinam lëndëmee mënatu la julli ba yàlla nangu ko nit su baatinam lëndëmee boo nga boo blokkee moom ndab bu yoree loxo bi ci ndab bi ndab bi day dañ koy ndab bi day am tooke yéen ñi bokk ndab bi di ko lekk yëpp seen baatin day baatin bu lëndëm musiba la te télévision mooy li gën a garaaw ci lu yàq baatin boo sa baatin yàqoo ba àgg ci yenn pourcentage da yàq yàqu yi lëndëm lëndëm yi ci seytaane ci ci lu bon pot boo naan ku ko naan baatinam day yàq yére boo sol ku ko sol baatinam day yàq kër goo dugg ku fa dugg baatinam day yàqu bool boo dugal sa loxo boo ko lekk bu fa dugal loxo baatinam day yàqu est-ce que xam ngeen loolu jumaa sax ñu julli jumaa boo fa duggee boo duggee jumaa gi koo bokkal sàpp julli du am julli juliga juliga yow yow yow yak rek batin bu yakku manam li tax mu graw moy bu xasse ba yakku ci yow da nga yàqu wala ñu bari te duñu ko yek li may wax ni est ce que dama fi wax lu extraordinaire li may wax yépp ngeen di ko dégg ba di ko ba di ko di ko jël est-ce que dafa est dafa nekk lu doy waar dafa nekk xam-xam bu jóge ci ci aw ji est-ce waxuma fi lu ah, lu extra noonu li may wax ni yu simple la lu tax mënuñu ko wax ci télé ci rajo yi ci gàmmu yi ci màggal yi ci concert yi lu tax mënuñoo toog di yee nit ñi nii lii lii lii lu tax nit ñi mënuñoo am ku leen di dimbali ci seenum xel lu tax posé wu leen question bi mais jóg leen ngeen xalaat tuuti jël leen seen xel ngeen ne lu tax lii may fi fii mënuma koo dégg télé yi ak rajo yi lu tax parce que ñoom ñi jiite réew mi ñoom ñi kilifa diine yeeg ñoom aada ñoom ñi nekk ci kaw donqaaso bi muy oligarchie bi muy nguur gi nekk ci kaw nguur nag bu ñu ko waxee ngeen jàpp ne ñi nekk ci nguur gi état nguur gi nekk ci diine ji tamit ci nguur ne ñoom ñaan ñëpp moom lañ la mafia politico matabitique ñoom ñëpp ci nguur la ñu nekk amuñu intérêt ngeen yeewu amuñu seen njariñ nekkul ci ngeen yeewu ba na jar seen njariñ nekkul ci ngeen am bay dund seen njariñ nekkul ci ngeen xam seen njariñ mooy ngeen nekk ay jaayil moo bëgguñu école yu baax seen njariñ nekkul ci ngeen bëgguñu ay hôpital yu baax seen njariñ nekkul ci ngeen xam bëgguñu ay école yu baax seen njariñ nekkul ci ay ngeen xam da defuñu benn programme ci télé yi yoo xam ne bu ngeen ko toogee di seetaan télé yi da ngeen ci gindiku amut ay concert lañ ngeen di may wali sekk fii Youssou Ndour fee tabaxal leen ay stade ngeen di foo ko fecc ko football indi leen ay coupe ngeen di tëbëka dal tëggal leen ay lamb ngeen di reyante kese defal leen ay gàmmoo ki màggal ak yu kenn xamul ngeen dama ko ñëw di togg seen i ceebu yàpp ak di ci sotti ay nen yu ñu baxal ak xaw ma dégg nga maam mu nii ngeen reçu ko dégg diw gu bon gaak tamaata yaak ceeb yi bon yi yëpp ngeen lekk da est-ce que sëñ bi ay waay waay sëñ bi waay xewlu naa waay ba ba déwénati ngeen dugg ci oto yi accidenté dee bu déwénatee ngeen ñëwaat rëbërët yokkuwu leen ci dara dara ba dara booloo jeex ñu ngi leen nelawoon guddeeg bëccëg ngeen mandi ci ak jaayil ya mandi ci ñàkk xam mandi ci ak ndóol mandi ci feebar dee ci loolu lépp tabbi safara subhanallah yéene wu ma leen ko yéene wu lii yéene wu ko su may sonn di wax te ma woon a tëj sama gémmiñ tëj sama téléphone toog jàpp sama njàmm dund sama dund gu neex macha allah namu ma dara alhamdulilah sant yàlla bu baax waaye sant yàlla googu may sant yàlla nekkul sant gu ma koy sant moom sama diggante moom képp sant gi ma koy sant mooy lii may def lii may def cant la gu amee yàlla di ko sant ndax yàlla soxlawul ma di ko sant yàlla lu ma dara lépp lu may defal yàlla ci nit ñi laa koy def ndax yàlla nit ñi ñoo ko yitteel yéen ñi may waxal ni lii may def ak yéen nii sant la bu may sant yàlla ci li ma defal man moo tax ma di ko sant ci def lii jëmale ko ci yéen ndax yéen xam naa fi leen yàlla teg ak fonk gi leen fonk yéen a xamul seen bopp yéen a ñàkk fonk seen bopp yéen la yàlla teral ngeen toroxal seen bopp def seen bopp ay doom yi làppatu topp ay nit waaye bu ngeen xamoon li leen yàlla defal yàlla ngeen di topp yàlla ngeen di gëm waaye bàyyi fa yàlla bàyyi fa yonentam ba taxaw naan bu yomal xiyaame bu yàlla taxawee yonent bi taxawee dama leen di romb dem taxaw ak diw kooku kooku toroxal yàlla la pourtant yàlla la def lépp may la lépp waaye nga toroxal ko sànni ko ci àll ba bu taxawee yonentu moom taxaw dama leen fay romb dem taxaw ak diw diw moom ngay dem seeti diw moom nga ne moom ngay seeti bu yemul rek yàmmee sëñ Mouhamadou Rafahi Mbacke nee na bu boobaa doo fa fekk diw Mouhamadou Rafahi Mbacke nee na su boobaa ca xutbaam nee na su boobaa boo bàyyee yàlla bàyyi yonent bi dem di laqatu ca ginnaaw diw diw moomee boo demee fa ngay dem di ko fa fekk doo ko fa fekk diw moomee da nga ko fekk mu taxaw moom ca ginnaaw yonent bi laqatu ngir bëgg a mucc du samay wax de sëñ Mouhamadou Rafahi Mbacke ko wax. moom moo tontu koo kookee naan bu yemul xiyaamee damay bàyyi yàlla fee bàyyi yonent bi fee dem taxaw ci ginnaaw diw Mouhamadou Rafahi Mbàkke ne ko diw moom mais ngay làqatu ji da di ko yaakaar bu yemul xiyaamee doo ko fekk foofee nga dem di ko seeti danga ko fekk moom diw moom mais mu làqatu ci ginnaaw yonent bi ngir bëgg a mucc est-ce que dégg wax ji loolu yëpp nag ay rëcc rëcc la yoo xam ne seytaane moo koy def ki nit dajjal la bafume waaye molok seytaane iblis jinne yi bu buñ la duggee boo jëflante ñoom dañ lay dañuy fël sam xel di di fël sa làmmiñ di la wax la loo xam ne waxu shirk la waxu dalay tàbbal safara ndax ñoom loolu lañ bëgg te fi ñu gën a bari nag ñoom seytaane yi dajale fi ñu gën a faax toog fa mooy fi ñu yaakaare yàlla fi ñu yaakaar fu mbooloo am ñu naan yàllaa fa nekk yàlla foofa ñoom ñoom foofa ñoom ñooy ambassadeur yi foofu la ñu naan faax toog boo doxee ñu fakkatal la boo waxee ñu fël saw làmmiñ ndax lan tàbbal la safara ndax yow kilifa gi boo tàbbee safara ñu bari dañuy tàbbee safara te liggéeyu iblis mooy fexe ba safara fees moo tax ñoom fa ñuy rëbbee ji ci iblis mooy Tiwaawan Touba ak pale bi fu mbooloo nekk foofu la iblis gën a waaf fu ngeen fekk mbooloo mu bari mbooloo mu bari fu ngeen ko fekk iblis a nga ci biir pour fadd ndax ci mbooloo moom lay fadd boo waxee mu fexe ba yàq sa wax duppi ko boo jëfee tout sax dana fexe ba yàq ko parce que benn métier dong la iblis am mooy bés bu nekk muy jël di tàbbal safara bés bu nekk muy amul moom utul leneen tàbbal safara rek tàbbal safara moo tax moytu leen mbooloo yu bari moytu leen daje yoo xam ne du ngeen fa dégg yàlla nee na yonent bi leen fépp foo xam ne iblis mënu faa toog ci mbooloo mooy mbooloo moo xam ne boo fa toogee ka jël kàddu di wax ci kilifa da nga koy dégg mu naan qaala allahu qaala rasul bu nee qaala allahu qaala rasul iblis day fat ay bagage am takk ay dàllam génn dem dem yoonam danaan fii mënu ma fi am dara ndax iblis lenn képp la mënta dégg mooy yàlla nee na yonent bi nee na waaye leneen loo yëkkati na wala alaaj maa nee na iblis day toogaat bu baax naan na di fàdd di fàdd di yóbbu di fàdd lenn rek mooy luy saafara seytaane lenn rek mooy yàlla nee na yonent foo ne yàlla nee na yonent bi nee na ñu takk seen i bagage foofu takk seen i genn foofu moo tax bokk na ci mucc ci seytaane di yëkkati kàddu yàlla ak kàddu yonent bi mu yónni di ko di ko di ko jëfandikoo maanaam di mu nekk sa wéeruwaay yàlla nee na yonent bi nee na fépp foo koy defee yàlla ci boppam moo lay musal ca fa nga koy waxee moo lay musal ci iblis moo lay musal ci seytaane ci jët ca ëtt ba nga koy waxee ak képp ku fa toog joxe sa nopp mu dugg sa nopp yàlla dana la ñagal sa bopp ba iblis du la mën a dugg waaye foo toog naan sama maam sama maam moom li sama bàyyi man lii sama maam kër kër kër booba yàlla noppi na ci yow ndax ba nga bàyyee yàlla la yàlla bàyyi yàlla moom boo ko noppi boo ko bàyyee tuddoo ko mu taxaw fi dafa am fulla ko boo boo newul yàlla nee na yonent bi nee na mu taxawee nee la ak nga naan sama maam lii sama maam leen ba dugg ci mbax wax wax joo xam ne saytaane moo la ci dugal ndax lan di war na da ngaa ci sa maam war na da ngaa xëri ci sa maam mënu waaye yow boo xëri ki sa maam sa maam xëri ci yonent bi yonent bi xëri ci yàlla yow nga ne bàyyi nga fa yàlla bàyyi yonent bi da ngaa dem ci sa maam xër loolu iblis moo la jàpp seytaane moo la dugal sa moo la tàbbal safara te xamoo ko moytu leen seen bopp moytu leen seen bopp te dellu ci yàlla ku dem ba am quatre-vingt-dix ans bàmmeel moo la gën a jege àdduna dee moo la gën a jege dund nga war a waajal sa bopp sa tëraayu bàmmeel waajal sa bopp sa ruux buy dem barzaq taxaw di xaar waajal sa bopp bisu penc waajal sa bopp dégg nga maam jéggi siraat nga toog di wax wax joo xam ne ku ko dégg na subhanallah ku mas a gis lu mel nii ah yàlla soxlawul quantité de yàlla qualité la soxla qualité yàlla li muy bëgg ci jaamam yi qualité la bëgg maanaam lim bu néew waaye bu barkeel bu baax yàlla soxlawul lim bu bari bu amul benn njariñ lim bu néew bu barkeel te baax te sell moo ko gënal àddina ak la ci biir lu sell di loo xam ne dafa dafa sell di kon na ñëpp génn dem manifester ji xeex góor jigéen yi njaaja njaay bu konos bi tabax stade bi ànd ceeg Macky Sall góor jigéen bu mag la Macky Sall ci la bokk Euh, Jean Claude Mimran bi moom compagnie sucré Sénégal góor jigéen la Omaïs bi moom Patrice Sène góor la frère bi mooy conseil spécial Macky Sall digganteem ak libaana yooyu moo koy dox mafia bi nekk ci libaana yi ak Macky Sall moom moo nekk ci frère Omaïs Mahmoud Saleh ci lobby boobu la bok, ak frère bi nga xam ne turfiste la dafa am ay fasu course di dawal ay fasu course nekk Louga mbokkam moomee moom xaritu Mansour Sy Djamil bii nga xam ne keroog bi ñuy élection locale yi moo ñu trahir ne yeewi askan wi laa bokk ba noppi dem di campagne benn boo ko yaakaar Sénégal gépp démb gis naa ko muy gàmm ko ma ziar bu ñu ko doon defal faas mu di lay naan waaw lu ma waaye def bàyyi naa ko yàlla bañ ma tuumaale bi ma nekkee France ak sama bàyyi na ma li yéeg li yonent bi sax muccul kër kër seen wax yooyu dañ koo miin def li ngay def def sa njombe ba noppi toog taalibe yi toog ngeen di photo so ci bam ci Maodo ji ah nga toog ne nong ca kaw naan am na cër yu am na lu ma yàlla may ma yàlla may xool ko mën a ñii duñu ay nit respecté wuñu te doomu aadama yi waaye nag comme ay ne nong ci kaw chaise bu ñu doore mu toog nag mel ne buuru Firawna bu toog nag di wax naan naan bi sax mucc na ko yow ba ko dégloo mën na koy xoolal ma ngay comparé ba foofu yàlla tu nit ñu tuumal nañ ko yàlla yàlla yàlla na ko bàyyi leen naa la àtteeg ñoom lu mu jublu ci loolu boppam moom jàpp na ne li ñu koy wax la ay tuuma la moom kenn tuumalu ko ay vidéo am lañ jël teg moom kenn tuumalu ko moo taxaw na yeewi askan wi laa bokk damay xeex pour ñu am ndam ñu signé charte yi mu signé charte yi ñuy dem campagne pour xëccoo ji xam ne yow loolu ana tuuma gi nga naan waaw ku baal nga ko bàyyi nga ko yàlla ak yonent sax kërëkërë yonent bi yàlla moo ko yónni wax yu bi du yow du alaaji Malick du Ousmane si du sa maam ngay comparé sa bopp yow fi yow la yow fu la yàlla yónni Mansour Jamil yàlla daf laa yónni ki nit ngeen di comparé bu ngeen bëggee nax askan wi doomu làppato yi nekk seen taalibe yi ngeen leen di nax bu ngeen tooñee askan wi ba askanu jóg dal ci seen kaw ngeen bëgg a jël misaal ci yonent bi ne moom it tooñoon nañ ko yàlla kër yonent bi yonent la c'est un message de Dieu yàlla moo ko yónnee du alaaji Maalik du Sëriñ Tuuba yonent bi du Seydina Abubakrin Sadiq du Seydina Omar Ali du Seydina Ousmane yonent bi du benn saxaaba du kiram yonent bi yonent bi la bàyyi bu ngeen jóg di méngal seen bopp ci ay seen jëf yi yoo xam ne kenn rafetluwu ko ànd ak say moromu gor ngeen si yéenal fii leen jëm ñu dem ba fee nga jàdd dem ànd ak nooni say morom yi nga xam ne dem ànd ak say noon ñi nga waroon a xeex nga ànd ak ñoom ñu di ko wax nga dañ lay sosal di jéem a jox ci kaw xelu nit ñi ko parce que si nga sant yaay kan yow Serigne Mansour Jamil amul luñ lay sosal luñ la waxal yaa ko def nit da am ngor am respectabilité am wekk sa bopp nga sant Mbàkke nga sant jaxumpaa ci yem nit nit rek la yàlla nit ñi lay waxal waxul la ku sant si yàlla xamul ku sant si xamul ku sant Mbàkke nit la yàlla di waxal nga nekk say moroom say nawle nit ngeen seq mbir teg pacte signé nga signé ma signé le pacte de l'honneur nga war a am dignité am honneur yow maasu si jamin dañuy xeex ñu ñuy xeex suñu noonu la ñuy xeex nga war a ànd ca xeex ba comme ni nga ko waxee signé ko nga signé ba noppi jël sa signature sànni ca àll ba noonu bi nga war a xeex nga dem ànd ak moom di ko ngemb ndax lan nee sa xarit la parce que yaa ngi ko xamee Dubaï ndax lan parce que nee nga il est compétent lu tax nga signé kon soo signé wul woon yeewi askan du ma la wax dara am nga droit def lu la neex ndax man du ma tooñ mais mënoo ànd ak man ñu bokk signé benn pacte nga trahir pacte bi ma di ko wax nga ànd ma lay tooñ parce que si nga sant lan mooy sant si sant si mooy lan loolu daf si alaaji Malick ba mu yoree daara gi tuwaaw li jàngal muqaddam yi loolu leen jàngal daf leen jàngal tappale daf leen jàngal wax waaw ba noppi jaar ci suuf def def daf leen jàngal naafeq loolu jàngale ngeen fonto nit ñi tok fi parce que si ngeen sant ne nangu ci kaw doomu lapp yi tok ci suuf doomu xaraami du nit dara top la ngay jogal parce que seeni jami si moy sa bay ba ci lan kenn du ko wax yeen respecté leen nit ñi jox leen nit ñi cër jox leen doomu aadama yi cër cër bi yàlla jox doomu aadama yi delloo leen ko doomu aadama yi fukk ngeen cër yi doomu yàlla yàlla amatul ndogal ci jaamam yi yàlla amatul benn cër ci ndax doomi làppate yi yàlla wàcce leen fi yëkkati leen ñu suufee seen bopp toroxal seen bopp jël seen bopp takk ci ay buum jox ko ku sant Seye ku sant Mbàkke yu kenn xamul ngeen toog ci kenn so yi doore yi di wax leen neex te ken leen weddi du dëgg li ngeen nekkee du dëgg man maa koy wax lii mooy li am lii mooy li ku ko wax moo am ku ko waxul moo am ku ko waxul tam naafeq nga da nga koo téye xam ko naafeq moytu leen dee ci naafeq xam dëgg te boo ko waxee mu am njariñ nga ne pat tax jàpp sa njàmbur parce que saytaane yi nekk ci réew mi xoqatal nañ leen ba ngeen ndog ragal nit ñi ngeen gën a ragal yàlla yéen yéen way gëm yi yéen ñi gëm yàlla ñeme ngeen yalla way ragal ngeen muntaha ragal ngeen ngi sant ci ngi sant mbàkke ba du ngeen leen wax dëgg ñooñu ngeen gëna ragal yalla ba dina ci réew mi ñoo xam tay billahi wallahi wa taalahi si mbàkke cawlaay tal euh, medina gunaas lañu gëna ragal ak ñass ak sekk euh, cana ba ñooñu ngeen gëna ragal yalla billahi li ngeen saña def ci yalla wala deug yalla ngeen niig nopi ci sañu leen ko def ci ñom ñi ñom ngeen gëna ragal parce que ñom dañuy fayu tout suite motax ngeen ragal leen te yalla mom day xaar waaye lu ngeen ko lebal rek na xaar ëllëg doo leen ko fay yàlla il est patient yàlla nit ku nit ku dal nit ku mën a muñ la nit kuy xaar la yéen koy lebal nag yéen a koy lebal de fayeegul moo tax ngeen ñeme ko waaye bis buy fayeeku ah wallahi si ngeen xam ne yàlla yàlla ku ko lebal bu fay la ñii ngeen ragal nag ñoom dañuy fayu jooni jooni bu ngeen leen defee léegi dañuy fayu léegi moo tax ngeen ragal leen ma ñemewul leen leen wax dëgg waaye bis bu leen yàlla fayee amul yuuxu de wallahi amul yuuxu yàllaa ngi dagale rek bisa ngi ñëw boo xam ne yàlla na leen fay yéen ci fu ngeen waroon a wax dëggam ngeen noppi fu ngeen waroon a défendre ngeen lànk ànd ak seen su boobaa yow ak ak man mii di wax da taxaw ne nem kenn du wax ku dul ko yàlla autorisé nga wax su boobaa da xam ne lépp dëgg la te yàggatul wallahu sabuur mu ngoog yàlla uh-huh. ku mas gis lu mel ni 17 millions de sénégalais ñëpp nekk ay doomu làppatu ñëpp nekk ay jaam xoqatal nañu ñëpp ki turu ci ay sant diwee sama maam di laa sant képp ñu jël ko noot askan wi teg ko seen kaw ñu ne kenn du wax ñëpp nekk ay jaam liggéey leen jox di tabax di leen jox ñu jël seen i jeg jox la ñuy nappaaje lu ñu wax gongo lu keneen wax dëgg ñu nekk ci mafia bi ànd ak politiciens nekk ci ko di pousse seen i pion muy dox ñu ne kenn du wax ñu ne kenn du ko wax dama leen laaj man nag 17 millions sénégal yooyu man dama ciy bokk man dama ciy ceppat sama bopp man bokkuma ci ñooñu man bokkuma ci li ngeen nekk cette compromission bi ngeen nekk jël lu bon lu baax lépp ngeen jaxase ko mélangé ko njambaan ko teg ci suturaak ay no lii suñu kilifa yi li waxal lii waaye bul wax lee kërë kërë ndax leen déglu de waaye mënu leen maa détourné doo yoo tax bu leen ko sax essayé man damaa ceppet sama bopp ci million millions cent mille sénégalais yi nga xam ne dañuy dund ci naafeq man bokkuma ci li ma xalaat laay gëm te li ma gëm laay wax tappale yi nekk ci réew mi dafa war a dakk ci fànn yépp nag gëmuñu yàlla gëmuñu dara dañuy taf yëngal di tappale gëmuñu dara dañuy nax yàlla waaye mi ngi ñuy xaar bañ dajeeg moom amul yuuxu de amul yuuxu Abi Fall nee na man bokkuma ci waaw góor a war tu as raison misaal la rek xam nga mënu mën a yow bokkoo ci li ma lii maanu mooy man sama bopp laa xam bokkuma ci comme yow ne nga bokkoo ci gëm naa ne bokkoo ci ku ci bokkul rek nga waaye su ma damay rek ba kenn ku nekk ne ceppa ci boppam man moom génn naa ci sama bopp man ndax man xam naa sama bopp mais ñeneen ñi xaw ma man man bokkuma te keneen ku ci bokkul génn ci sa bopp nit du dee ki naa feq loolu mooy li kenn ku ci nekk xam nga sa bopp am na loo xam ne man uma xam-xam bi mais généralement xam naa ne réew mi bari na ay naafiq ñi ci nekk nag ak ñi ci nekkul naafiq kenn ku ci nekk yow xam nga sa bopp xam nga li nga taxawee xam nga liy dëgg xam liy fen xam nga liy dëgg fen li ñu boole xam nga ndax wax nga ci wala waxoo ci xam nga ndax am nga fitu wax ci wala amoo fitu ñu xam nga nit du nax boppam ni nga xamee yow sa bopp noonu la yàlla xamee mieux même d'ailleurs yàlla ni la xamee naafiq gi nekk ci yow ni ko yàlla moo gën a ndar képp yow ni nga xamee sa bopp kon kenn ko xam nga man moom xam naa sama bopp man man man moom bokkuma ci man moom maa ngi koy yëkkati di ko wax te bu laajee xeex naa ko xeex su ma ci waree dee ma dee ci moom ma gënal dund ci naa feq dee tàbbi safara dee ci xeex dëgg moo ma gënal dund ci naa feq ba xubi daas dee tàbbi safara xalaatunu ko xalaatunu ko kon nañu gën a taxaw am pasteef am pasteef ci suñuy li ñuy woote li ñu gëm dëggal suñu bopp te bàyyi naafeq bàyyi uruj bàyyi njuuj njaaj bàyyi tappale ak naxaate ak bàyyi dox ci xelu nit ñi bàyyi wor bàyyi koo séqal trahir ko nañu bàyyi loolu te dëggal suñu bopp xeex bi ñuy xeex dafa weesu ay intérêt personnel dafa weetu ay man maay jiitu kee mooy jiitu kii ma war a jiitu ku man ta xam na ñëpp ànd jiital ko ci xol bu sedd bañ a soxorante bañ a iñaanante man la man la man la bu nekkul man du kenn yow yaay kan ba war a nekk yow kese man la man la man la man la yow la yow la yow la yow la moo ko gën a wóor man la man la man la yow la yow la yow la moo gën a wóor man la man la man la lii may def na dama cee néew doole dama cee néew kàttan man man dong la loolu la ma metti li ma leen laa am la ma metti ci réew mi mooy lii may wax lan moo tax man képp ma di ko wax lu tax man loolu ma metti lu tax mënumaa am ñu baree baree bare bari ñu mel ne man di def li may def ndax ñun ñëpp ndax ñu mën a am doole ndax nit ñi mën a tënk ko yeewu lu tax man loolu mooy li ma metti bu ma amee benn lu ma metti ci réew mi ma wax leen ko tey mooy lii lu tax lii may wax ma jàpp na njariñ la am ñu jàpp na njariñ la lu tax mënuñu koo waxandoo lu tax mënuñu koo yëkkatindoo ma loola ma metti lii rek la kon na ñëpp mobiliser wu na ñëpp génn nañu dajaloo taxaw temm ngóor jigéen jóge ci réew mi ku bëgg a nekk góor jigéen nga takk say bagages génn réew mi abal ñu mais góor jigéen moom il question

waa Fass Touré macha allah nii doo ngeen mën a taxawee ndax sëriñ Aadi Touré moo jàngal alaaji Abdou taxawaayu alaaji Abdou tey noonu la waa Fass Touré amee taxawaay boobu moo tax dëgg rek mooy dëgg te meew dafa foor te deret du fen am na ñoo xam ne bu ñu waxee rek bu buñ ne leen diwaleen jur nga ne waaw nii doo nga la man a demee nii dong la mën a demee kon ñu ngi leen di sant bu baax waa Fass Touré dégg nañ seen i kàddu ni ngeen ko yëkkati ak bépp imam bu yëkkati kàddoom ci ngóor jigéen bi bëral ko xeex leen woo ñu ñu àndandoo taxaw xeex góor jigéen képp ku ci sa kàddu yàlla la yàlla fay ñu ngi am mbégte ci yow tax di la ñaanal yàlla mu dëgëral la may law fit guddal saw fan ba li ñuy xeex yëpp yëpp yépp ñu am ci ndam ndax yombul nga yëkkati sa kàddu ji wax ci góor jigéen ci réew mi ndax lubi bi fi nekk dafa am doole seytaan yi dañoo àndandoo lënkaloonu dugg ci diine ji nag dugg ci état bi ñaar yooyu la ñu boole muy la mafia politico maraboutique bi ma yàgg tudd mafia politico maraboutique waxuma ko rek par hasard moo boobu li tax ma boole ko génne ko di ko di ko di ko def ci réseau yi ba mu siiw la mafia politico maraboutique c'est c'est une étude sociologique lu ñu étudier la en profondeur ba xam ni ñu lënkaloo du lu ndaw lu profond la Abi Fall je prends 15 à 20 minutes pour sensibiliser mes étudiants maa ngi si bay macha allah macha allah plaisir di dégg lu mel nii ngay wax ni ba yàgg ci li ngay wax am ku ne man kat li ngay wax mayit maa ngi koy waxee man loolu moo ma gënal ay milliards wax nii mu dugg sa noppi nga gëm ko yow boo ko gëmul moom amul problème bu la neexee nga parce que nit wax mu gëmul boo demee ba gis ki sa bopp ko joxale di di ko di ko di ko jàngale wala nga di ko wax ñeneen ba ñu loolu moo ma gënal ay milliards parce que nit ñi ñooy defar milliards

ci loolu la nekk mu bëgguma jàppale kon macha allah abi Fall yow bi nga xam ne yow yaa ngi def sa waar yooyu ca fa nga nekk ci sa milieu di yee ay nit keneen ak keneen oustaz bi na ko def commerçant bi fa mu nekk ci biir marché ba su ko mënul tamit su fekkente ne ak mi ngi wax wala abi Fall wala kenn na taal laay fam foofa yokk ko ba mu sos def ko ci opaleur ñëpp yi déglu ñu jokkalante ki ci hôpital bi na ko jokkalante di yokk téléphone am ñëpp yi déglu ki ci marché bi na ko def ki nekk ci boutique bi na ko def bu fekkee mënta wax it na mën naa partager partager mooy nga taal sa téléphone def haut-parleur bi yokk ko def ko ci ay baafal ñëpp di déglu taximan bi ci biir taxi bi na ko na ko yokk ba client bi di déglu nekk ci dëkk kaw ga bu amee connexion na ko def yëgati ko ba ñëpp di ko déglu ci ëtt dëkk ba na ñëpp toog bu ñuy def live ñëpp di déglu waaw kenn ku ci nekk fa nga nekk na nga fexe ba sa endroit famille bi yow mi nekk ci famille bi groupe famille bi groupe famille bi na nga fexe ba audio yi dugg ci biir whatsapp bu famille bi loolu tamit ci xeex bi la bokk. ci parce que doomu làppato gi laa bëgg mu nekk doomu malien bi doomu làppato bi. laa bëgg ñu soppi ko def ko doomu malien àdduna bi dafa day dox jamono yii ñu dund ba keroog àdduna bi tukki mënuñoo dund comme yi mag ñi daan dundee ak maam ñi mënatul nekk c'est fini àdduna bi tey bokkul ak àdduna démb àdduna alaaji Malick Serigne Touba ak yooyu du suñu àdduna ñun bokkuñu àdduna ñun àdduna bi ñu nekk àdduna bi dafa taf maanaam dafa gaaw da ngay dëgër dangay mën a xeex àdduna boo xam ne da xeex la àdduna àddunay xeex la aduna yi am fit ñaan da ngaa bari fitna da ngaa bëggoo jàmm jàmm aye koy may nañ ñun ñëpp dañoo war a suñu bop ci dem ci aw ay ay moy indi jàmm fo ay amul jàmm du fam après la pluie le beau temps qui veut la paix prépare la guerre loolu chinois yi xam nañ ko Sun zu jangal nañu ko japonais yi vietnamiens yi américains yi français yi aduna bi yëpp jàng nañu taarix histoire àdduna bi ba gis ne fi jàmm am ak naataange ak dund yëpp reyantaa fa njëkk am ba noppi ba ñu reyantee ba noppi nag la ñu ne ah kenn ku ne xam nga léegi lan mooy jàmm ci la ñuy parce que jàmm mënoo koo xam lu nga dund ci guerre nga reyante ñun mosuñu reyante moo tax wax ñu ne jàmm lan mooy jàmm mënoo faju amoom liggéey élèves yi jàngi wuñu mi yàqu na géej gi joxe nañ ko lu baax ci réew mi ku ne phosphate bi joxe nañ ko or bi jox nañ ko tubaab bi zircon bi jox nañ ko tubaab bi ICS bi jox nañ ko tubaab bi autoroute bi jox nañ ko tubaab bi franc CFA bi tubaab yee ko moom ala ah, mais ana jàmm ji seen doom yéen yii ñi ma déglu yéen a ngi seen kër yi dankalikoo papa yaay doom sët ñoom ñëpp dankalikoo ci benn néeg mat laa yi xasaw xunn parce que dangay ngay jur loola màgg jur kooko màgg jur ci même kër gi ngeen di dankale koo kër yi kër yi yàqu xasaw robinet yi yàqu ndox yi fii duur yi fees ngeen teg bool bi baxal kenn ku nekk copp ñaar mu jeex ñii dugg génn fa nelaw guddi ñii génn guddi guddi ngeen di passante kër gi comme chambre de passe parce que da ngeen di dankali ko promiscuité boobu parce que amu leen perspective amuñu politique de développement xam nga euh, planifier xam ne nit ñi dañuy jur doom doom yooyu dañuy màgg jur doom donc dañu war a planifier donc tout ce qui est aménagement territorial aménagé territoire yi suuf dagg ko dagg dagg dagg tabax ay immeuble tabax kii def ay appartement nit ñi mën dëkk indi assainissement indi eau indi donc lépp luy infrastructure transport indi lépp ñu koy planifier sur les vingt ans vingt cinq ans population Sénégal fu mu jëm njàng mi ñu planifier tabax école yi planifier tabax classe salle de classe recrutement professeurs yi budget bi ñu di yok tout ça développement économique port beeg yépp ñu di planifier mu nek une vue d'ensemble sur une stratégie de développement xam nga euh, sur euh, quinquennat sur 15 ans euh, wala sur 20 ans 25 ans mu am perspective nga xam même régime yi ñëw su ñëwee tamit plan bi da fay cohérent cohérent bo xam Macky Sall tay bu ko defoon tamit même bu Ousmane Sonko njëg ñëwoon remplacer Macky Sall mais Ousmane Sonko day ñëw sofu ci loolu tafu ci loolu rek continuer parce que kooku plan bi day nekk plan boo xam ne dañ koy defar de manière à ce que mu viser l' intérêt général intérêt général te ji Ousmane Sonko mënu ko moy man mënu ko moy ku mën a falu ci réew mi ëllëg mënoo koo teggi parce que loolu mënoo def lu gën loolu mooy njëriñu askan wi loolu mooy générosité loolu mooy altruisme loolu mooy ñi bëgg a dem noonu la ñuy def mais boo ñëwee fekk li fi wàdd bàyyi woon nga toj defal def la neex bu Sonko fekk li defal mu parce que ñu réew mi un plan de développement national un PDN un plan de développement national Vous a da fay ans ñu jël une génération 25 ans yi Sénégal dañuy avons fait ñëpp large concertation sur tous les aspects

tabaski mënu leen a boole korité mënu leen a boole ci benn bis julli sax waxtu mënu leen a boole ñi dañuy julli ci waxtu bi ñi julli ci waxtu be waxtu julli mënu leen a boole waaye coupe d'Afrique ku bu saytaane ku bu dajjaal moom ba mu ñëwee yéen ñëpp yéen a bokk waxtu bi ngeen jógandoo yéen a bokk fi ngeen jubluwaay yéen a bokk benn wax bi ngeen wax yéen ñëpp loolu loolu loolu boo ko xoolee xam na lii yëfu saytaane dëgg la soo ko xoolee settantal ko yàlla may xel da ngay xam ne coupe bi saytaane moo moo laxasu ci ginnaaw ndax lii saytaane rek moo ko mën ngeen ne kenn du ko wax Ablaye merci j'ai toujours combattu l'injustice et je continuerai à combattre jusqu'au jusqu'à mon dernier souffle très bien Masha'Allah. voilà loolu amna solo jerejef parce que defaloo sa bopp nga ko defal may li may def defaluma leen ko sama bopp laa koy defal waaye kenn ku nekk boo defee rek mbooloo mi am am dara. Voilà, j'ai travaillé dans une usine en Espagne, tout ça, patati. Voilà, les Chinois, tu apprends beaucoup de choses. am nañu lépp Sénégalais diaspora bi ñu ngi fépp réew mi kenn mënu koo développer sans la diaspora Sénégal ba keroog muy sotti développement Sénégal ci diaspora bi Sonko ñëpp ci am ku ci mën a ñëw ci réew mi te jëloo diaspora bi ànd ak ñoom liggéey doo soqaliku Sénégal diaspora bi ñoo ko mën tabax loolu moom dama koy assumer je l'assume dama koy défendre dama koy théoriser loolu dinaa ci ñëw ay live live live expliquer ko on ne Sénégal kenn mënu koo soqali te jëloo diaspora bi teg ko au cœur de la stratégie lu leer laay wax sur tous les points de vue ñi nekk ci diaspora bi ñoo man ñi nekk Sénégal fuuf bokkuñu parce que rigueur bi muy laaj maîtrise d'ouvrage bi nga xam ne sénégalais yi am nañ ko ci seen domaine dans n'importe quel domaine de développement bu ñu soxla Sénégal boo demee ci ci diaspora bi am na fa ay sénégalais yoo xam ne xarañteef gi ñu ci am expertise bi ñu ci am ñu nekk Sénégal amuñu waxuma ne sax mën ngeen sax yam xam-xam bi waaye rigueur bi dans la mise xam nga xam-xam ñaari niveau la xam ak xam pratique. sénégalais bi mën na am xam-xam théorie bi mais xam-xam pratique bi foofu la ko sénégalais bi nekk ci diaspora bi di ko mënee ndax sénégalais bi nekk diaspora bi day am xam-xam théorie bi ba noppi am xam-xamu pratique bi mise en œuvre bi détail bi muy am ci mise en œuvre bi xam-xam boobu mooy xam-xam bi suqali xam-xamu théorie baax na mais du suqali dara xam-xamu mise en œuvre mooy xam-xamu tabax jëf jàng nekk école bi jàng ay leçon jàng ay leçon jàng ñu lay jox ngeen ni théorie théorie théorie waaye dugg laboratoire pour expérimenter def physique chimie ñu lay jàngal physique da jox formule yëpp te duggoo laboratoire testé li ngay jàng ki dugg laboratoire di testé ci loxoom di testé li muy jàng kooku moo la man yow mi jàng leçon bi di ko këru mënuñoo tabax Sénégal te diaspora bi loxoom nekkul ci digg tabax bi amul ci wàllu koom-koom kenn rawu leen ci réew mi ci wàllu koom-koom ci wàllu expertise kenn rawu leen ci réew mi ci wàllu mise en œuvre pratique wax naa ko sama benn xarit ma ne ko xanaa xamoo femme de ménage femme de ménage mindaan bi nekk France di raxas bool ak di nettoyer di fomp mindaan boobu mindaan boobu kii mindaanu France di raxas kër yeek raxas bool yeeg yooyu nettoyer ak nettoyer kër moo man mindaan bi raxas palais Macky Sall xanaa xam leen loolu tuwaa gi ne ma lu tax nga wax la ma ne ko man damaa am kuy raxas ku nettoyer sama kër fii France benn jànq ma di ko seetlu gis ni mu koy nettoyé bi mu ko nettoyé ba noppi ma gis professionnalisme bi te du Sénégalais de du Sénégalais c'est un Cap-Verdien Cap-Verdien la fee société bi moo ko embauché société bi may bi may raxas sama moo ko embauché mu ñëw ma koy xool mais efficacité bi muy nettoyé dama ko xool mais mu jaaxal ma mais man damay xalaat sama xel mu yóbbu ma fu sori ma ne kii tey ku ko yóbbu Cap-Vert nga mu dëkk ña fay nettoyer bureau yi di nettoyer kër yi yëpp moom mii moo leen man lu tax parce que tubaab fi mu nekk France di fa liggéey tubaab bi ko embauché daf ko defal formation ba mu formé ba noppi dañ ko jàngal xam nga détails yi maanaam ni muy loqatee ni muy nettoyer ni muy fuberee ni muy ni muy raxasee douche da ngay xool xam ne kii dafa nekk dans le détail près maanaam defantuwul daal du tappale da koy liggéey liggéey bu mucc ayib parce que bu ko deful dañ koy dàq fa mu nekk du xëy si parle gogo, pas-pas bobo, pas-pas bobo, moo nekkul Sénégal sénégalais yi amuñu rigueur rigueur mo ko les sénégalais amuñu rigueur le diable se cache dans le détail la rigueur c'est qui que kii rigoureux deug deug deug deug dëgg dëgg day top mbi diko top ba ci le monde détail du bàyyi ben détail lepp day tegu ne kocc sénégalais dañu léger motax tax diaspora bi dafa am luñu jang bitim rew même ki dem bitim rew ta jàngul école mënul bind turam xamul dara kooku mu raxas di nettoyer bureau boo ko yóbboo Sénégal def ko capot def ko chef ci nettoyage mooy man sénégalais yëpp te mënut a bindu turam loolu expertise la kooku dañ ko soxla ci réew mi te benn exemple boobu laa jël mën naa ci jël ay milliers exemple ay millions exemple ci fan fànn boo jël nag fànn boo mënti jël Sénégal ñu soxla ko teg fa sénégalais bu am expérience ci diaspora bi nga teg ko ca foofa gi Sénégal moo gën a wóor nga teg fa sénégalais bu mës a dem fenn donte ñoo yem ay diplôme ñoo yem ay jàng ñoo ko fépp waaye sénégalais bi jàng moom ba am même diplôme yi am expérience Europe wala Occident yi wala mu am ko Japon wala Chine wala fu mu ko mënte am à l'étranger dans les pays yoo xam ne dañu am rigueur ci seen liggéey kooku ex man ma jël ko teg ko foofu moo ma gënal teg fa ab sénégalais bu nekk ci biir réew mi te demul fenn donte am na ijaasa yi am na njàng meeg yépp parce que dafa am loo xam ne ñun sénégalais yi amaguñu ko mooy amuñu pratique amuñu rigueur am nañu njàng nag mën nañu jàng de jàng ba mokkal ñu jàng am ci ay diplôme waaw nekk ci ay docteur nga gis ko naan docteur diw docteur diw loolu moom macha allah waaye nag nekkuñu docteur ci mise en œuvre ci pratique nekkuñu docteur ci rigueur amuñu rigueur amuñu amuñu amuñu expertise en pratique li may wax li may wax li may wax du lu mooy làmbatu kon bu ñu bëggee soqali réew mi maa ngi koy wax Ousmane Sonko il faut que ñu prioriser les priorités amul chol gogo mu nek maire mënu ko soqali sans la diaspora ndar mënuñu ko soqali sans la diaspora Dakar Sénégal amul fenn fu mënta soqali ko te diaspora bi dugal ko loxo mënta nek. Sénégal ci boppam mënuñu ko yëkkati sans la diaspora loolu il faut que ñu xam ko au niveau des politiques publiques nationales comme locales amu ci lu waay mën def te dugaloo ci diaspora bi premier partenaire technique financier xam nga Sénégal dafa am les PTF les partenaires techniques et financiers du Sénégal moyenne Banque mondiale FMI Union européenne France les pays de l'OCDE Nous avons les ambassadeurs là Luxembourg euh, CTZ euh, CTB coopération technique belge la coopération canadienne l'USAID américain euh, l'agence française de développement nous avons les partenaires techniques et financiers du Sénégal tu vois l'Union européenne tout ça nous avons les PTF man sama vision moy PTF yooyu waratul nek ñooñu sama PTF les partenaires techniques et financiers du Sénégal c'est la diaspora sénégalaise en priorité Donc, Ousmane Sonko nako jël théoriser ko pratiquer ko il faut faire des Sénégalais de la diaspora les premiers partenaires techniques et financiers du Sénégal am nañu technique bi am financier, la diaspora sénégalaise bu ñu leen organiser pourquoi ñu koy def tubaab bi tubaab bi bañ commencé nek suñu ay partenaires techniques ak financiers ba légal bañ njëriñ lañu amal dañoo nous il faut renverser la vapeur il faut transformer il faut changer de disque il faut changer de paradigme les partenaires techniques et financiers du Sénégal doivent désormais être en priorité les Sénégalais de la diaspora Maramane ba que Japon ak Anatole France ak euh, Ousmane Dramé États-Unis ak Gigi ba France ak yow mi Italie ak ki Japon ki Chine ça c'est l'expérience c'est l'expertise c'est aussi des moyens financiers colossaux. Ce sont des milliers de milliards. La preuve, les partenaires techniques et financiers du Sénégal, le Sénégal, au niveau du budget, ils mettent plus de 250 comme 300 milliards, appui budgétaire. ci c'est budget parce que c'est budget matul dañ lay dimbali waaye bu ñu lay dimbali ñoom ñooy wax li ils lay dimbali fan lañ koy 300 milliards yi nga les partenaires yooyu occidentaux yi dugal nañ ko ci budget chaque année ils ko jàppale dañ koy dugal ci lépp loo xam ne genre lay nekk mooy xeex pour góor jigéen ñi mën a am doole wala nga dugal ko ci loo xam ne day wàññi njur mi wala nga dugal ko seen i programme yu bon yoo xam ne dañ naan politique bii boo ko defee boo ko defee politique jël ci ay loi ñu ñu jàppale la xaalis jox la noo koy doxale ci sa wàllu budget gis ngeen ni ñu lay dimbale dañ lay dimbali ba pare conditionné la wala ñu dugal ko ci wàllu éducation njàngale mi ne la waa daañu dugal leen kuy Serigne Touba jàngaluñ leen ko Laaji Malick jàngaluñ leen kuy xam nga Njaajaan Njaay jàngaluñ leen kii xam nga xaari amal Fall jàngaluñ leen kenn jàngaluñ leen l'histoire du Mali l'empire du Mali l'empire du Ghana jàngaluñ leen l'Égypte ancienne waxoon nañ leen ko jàngal l'Égypte ancienne dafa war a nekk programme au cœur de notre programme Cheikh Anta def na ci ay liggéey yu mucc ayib am nañu suffisamment de matière pour jàngal l'origine nos origines ñun nous sommes des Égyptiens ñun kenn du ko jàng ba jël tuuti xaay def ko ci budget bi Macky Sall ànd ak ñoom li lay xamal ne Sénégal diaspora bi moo ko gis bi les meilleurs sénégalais de la diaspora dans n'importe quel domaine bo ci jël les experts les meilleurs j'en connais ils sont top dans leur domaine ici en Occident boko ko ne woon ceeb yóbbu ko Sénégal day rire day mel ne mës du xam dara pourquoi ñaari mbir moo tax L'environnement du travail Sénégal il faut que nous l'environnement le milieu du travail dañ ko que milieu de travail ay rapports de travail yu créer une administration bu un environnement du travail bu créer des ressources humaines de qualité yu ressources humaines il faut que mu nekk diaspora au cœur nga diaspora les valeurs universelles parce que chinois les japonais yi français duñu ay américains Malaisiens, ce ne sont pas des Américains, ce ne sont pas des Français. Vietnamiens, Cambodgiens, nous sont des ay français et Américains. mais nous ñëpp lan moo ñu am valeurs universelles yu ñuy du point de vue managérial lu tax une façon de management xam parce que dañu un bon sens kenn ku des une am nga say particularité ak spécificité mais n'empêche dafa am mode d'organisation de management universel parce que nous sommes encore des lapotos, nous sommes dans l'irrationnel nous sommes dans l'émotion il faut qu'on soit beaucoup plus rigoureux que cela qu'on arrête nos pertes de temps des futilités Gamou, Magal, c'est des histoires rentrons dans la science organisons-nous pour s'occuper. les c'est ça la vérité ku fi taxaw di wax que ratatat Sénégal day lay nax mënuñoo defar Sénégal sans mettre la diaspora au cœur de la stratégie lu leer laa leen wax Sonko ñëpp a ci yem ku fi ñëw taxaw tamit te jëloo diaspora bi dugal ci sa stratégie de développement économique et social bi nga bëgg Senegal, bu ci diaspora bi bokkul du dem parce que bu jëkkul diaspora bi tubaab bi da ngay compter tubaab bi nekkuñu fi pour du la jox xaalis pour nga soxaliku il ne faut pas rêver bu leen fi nekk di gént de France oui Allemagne États-Unis ay caaxaan la du ñu leen masa jàppale pour ngeen suqaliku amuñu intérêt Afrique suqaliku Afrique li fa nekk ci ay mbel ci ay ressources fer diamant or pétrole gaz la fa nekk ci ay mbell bis bu ñu suqalikoo Afrique Europe ak États-Unis ñoom ñëpp dañuy ndóol dañuy daanu ñoom ñu xam nañ ko du ñu la jox mukk nag yet wi nga xam ne bu ëllëgee moom nga leen di duma dañ lay jàppal ca catu yet wa nga japp ci yet na ko fekk ñoo la doole xëcc ñuy xëcc nga ci benn bi ñu ci benn bi bi du sa nekk ay nit li ñu bëgg tabaxal suñu expertise bi expérience bi moyens yi bi bu ñu nekk ci biir réew mi amul ñu nekk ci diaspora méthodiquement l'épargne de la diaspora quand on envoie plus de 2000 milliards par année ñeenti téeméeri milliards diaspora bi di ko dugal Sénégal at mu ne bu fekkante ne loolu am na loolu jàppal na mooy vingt cinq pour cent de leur revenu vingt cinq pour cent de leur revenu diaspora bi su fekkante ne ñi ngi dugal Sénégal deux mille milliards diaspora bi am na capacité de mobilisation de son avoir war na toll ci huit mille milliards pour nga mën a yónnee deux mille milliards il faut que nga am huit mille milliards huit mille milliards kon mu des quatre deux mille milliards kon diaspora bi bu yónnee deux mille milliards Sénégal am na deux milliards yoo xam ne rationnellement war na ko mën a bàyyi mu nekk épargne de sécurité ci banque tubaab bi ñun diaspora bi kenn ku ci nekk li nga yor ci banque tubaab bi bàyyi ko fa bu ñu ko dagale woon sénégalais yi nekk diaspora bi yépp mat na deux mille milliards minimum deux milliards tubaab bi dugaluñu ko Sénégal li ñu lay may ci aide yépp matul trois cent milliards li ci des yépp ay bor dañ la koy lebal di ko fay diaspora bi financé le développement du Sénégal le budget du Sénégal est à 4 000 milliards l'impôt et la douane ñom ñaar 2500 milliards lañuy en recette chaque année bu ges bu état Sénégal organiser diaspora bi ba jël l'épargne de la diaspora chaque année état jël épargne diaspora bi 2000 milliards lepp ko diaspora bi diaspora bi lebal ko état bi à des taux concessionnels parce que nous sommes des patriotes nous voulons contribuer au développement à condition que ñu am un plan de développement économique et social bu sur 25 ans bo xamna kenn du ko déroger ku ñew dem bo ñew da nga ci taxaw jaspala bi jël xaalisam def ko ci ñu financer notre propre développement soxla wuñu xaalisu kenn kenn kenn expatrié yi Sénégal yëpp ñu jëli leen ñëpp ñibbi Sénégal ñu créer ben administration bu bees éthique moralement ñëpp taxaw ñuy liggéey wacc liggéey xëy heure wacc heure kenn ku ki nekk domaine bi mu xool ñu xool les meilleurs tek ko fa dans tous les domaines mu am ben monitoring bu taxaw une supervision patriotique ñu liguey liggéey soxla wuñu chinois soxlawuñu tubaab géej gi ñu nanguwaat ko tabax suñu ay usine defal suñu ay ton di exporter comme ñep nangu suñu soxla wuñu kenn signé wuñu convention amul APE on sort de tout ça signé wuñu APE joxuñu suñu jën chinois joxuñu kenn ñu sommes de l'expertise ñun ñoy defal suñu ay jën tabax suñu ay usine créer ay emploi or bi ñoo koy defar foofu jamaa yi li am Sénégal yépp foofu lañ koy transformé comme en Namibie ak feneen ak feneen mais loolu ñun nous ne sommes pas capables de ça ñu toog fi di wax ay màggale ki muntaxaa ki euh, ki Touba ki Tiwaawane est-ce que ay nit ngeen est-ce que ay nit ngeen boo leen nee làppatu ñu naan la moo tax nga ñu làppatu mais làppatu mooy kuy xalaatee nii loolu ñu kontaan du taxaw ma gis ci Facebook ñu naan oui comité xaw ma de pilotage euh, jumaay Tiwaawan gi dañoo demoon sax di travaux yi ma xool leen seen bolog yi seen dubbi man a xam xamuñu li xew jamono bi nekk di toppatoo ay juma ay jakkay yi milliard bo demé Cambodge wala nga dem Vietnam wala nga dem thailand da ngay waru ci yalla mais ay làppato leen demuñu fenn da ngay tabax ay milliards ko ci jumaa milliards ci jumaa pour lan yow nga wa tabax ay usine Tiwaawan nit ñi xey liggéeyi nga ay milliards ci ay tuba dajale ku nekk di indi ngeen tabax ay jokk pour lan pour julli 5 minutes ku nekk ñibi mais ñi est ce que ay nit lañ pendant ce temps cambodgiens yi vietnamiens yi thaïlandais yi ña ngay tabax ay usines yoo xam ne ña ngay li ngay lekk yëpp fa lay jógee lu bari li ngay lekk foofu lay jógee yow nga taxaw ak sa kaftaan naan na ngay tabax jumaay ki ay yi yu kenn xamul li ma leen wax ku leen ko kenn du ko wax ay nit ñoo amul ci réew mi problème bi mooy loolu mooy li ma tuddee làppato ay làppato ñoo fi nekk nit moo fi newul il faut que ñu tabax nit ñi d'abord le développement c'est d'abord philosophique être intellectuel c'est être un philosophe philosophe nag c'est dans le bon sens du terme c'est pas un utopiste je ne parle pas de philosophie des des utopistes des rêves di gént cette cette philosophie euh, comment on appelle ça encore J'ai un trou là. Mais une, philosophie axée sur une prise de conscience citoyenne et politique très poussée d'abord, mais une philosophie euh, qui te permet de croire au projet de développement économique, de croire d'abord en, soi. il faut que nous soyons. laata ñuy gëm suñu bopp il faut que ñu xam suñu bopp xam sa bopp mooy xam na yow nit nga doo làppatu xam sa bopp mooy yow sëriñ bi moomu la benn sëriñ moomu la kenn moomu yàlla moo la bind boyal la moomal la sa bopp jox la xel nga war loolu yëpp war ko wëlbati ànd ak say morom yu mel ne yow ñu booloo ànd tabax réew mi d'abord bala nga ne naam na fi bala ngay uti sëriñ rek di joxe addiya da fexe ba am foo fajoo am foo lekk am foo liggéeyee am foo jàngee say doo mën a am foo dëkk bala ngay wax sëriñ sëriñ naka la mën a nekkee priorité ci yow sëriñ sama benn xarit laa doon waxtaan ba mu ne waaw démb ci guddi ñuy waxtaan sama benn xarit murit sama xarit la ñuy waxtaan lu bari mu ne man ba ma mu ne Touba la dëkk dafa am kër Touba waaye kër ga kër suukar la mënu koo def rek mënu ko jaay mënu ko kii ba waaw benn chef de village bàyyi bind xaw ma bind ratatata am nga yaa kër gi amul titre du bàyyi du titre foncier dara nga investi tabax ko bis boo fa bëggee génn boo ko jaay day am difficulté parce que amul mënoo ko amul valeur daal kër gu amul valeur ña fa dëkk ñëpp kër yi amul valeur. ak noo milliard boo fa man def kër gi amul valeur ma ne ko tax nga dem dëkk fa mu ne ma waaye sama papa taalibe bu la woon amoon naa kër dakaar dégg nga maam ma waroon ko tabax mu ne ma du ci dal taalibe day dem dëkki Touba wax wax wax ba ba ma jaay terrain ba Dakar te fi mu ko fi ma am tey terrain Dakar tey jii bu bu fa dëkkoon tey tabax ko fa kër kër gi ma am Touba bu ko amoon fii mu amoon Dakar ba bàyyi ko fa jaay terrain ba dem tabax ko Touba bu ko tabaxoon tey Dakar kër na ma 150 millions tey. te kër ga mu tabax Touba mutul 40 millions mënu ko jaay 40 millions tay dembe de maa ngi ñu waxtaan bu ma deglu dina xam mu ne ma kër gi ma am Touba mënu ma koo jaay lu ëpp 40 millions te bu ma ko tabaxoon Dakar fa ma amoon terrain Dakar ja booba jamono ba ma koy jënd su ma ko tabaxoon fofa tay kër sama kër gi ma am Touba bu nekkon foofa tay Dakar tay man na ci am 100 ba 150 millions te lolu moy deug parce que famu ne foofa fofu la mon terrain fofu tay fofu tay kenn fofu amatu sax souf fofu waaye papa ji soog a ma ne ko ana papa mu ne ma sama papa dee na bu yàgg ma ne ko waaw de dugal na la ci tabax kër Touba waaye dem na bala ak sa jafe-jafe mu ree ba sonn ne ma gis nga ko de mu ne ma gis nga parce que moom dem na ba mënatul dëkk Touba parce que environnement bi Europe la nekk nekk diaspora bi xam na développement xam na bien-être am na yu bari yu tàmm waaye ak ak pas-pas ak papaam yu màndi ci ak cëriñ moo ko dugal forcé ko te mag la de bi ko papa yi def waaye gis nga suñu papa yi ma ne ko papa yi dañuy juum ci yu bari suñu papa yi seen jamono bokkul ak suñ jamono ñoom xamuñu lu xew li ñu xam dong la ñuy dund bon on les tient pas parce que ñoom loolu xam ci làppato la ñu xam nekk ay taalib bi topp a taxaw ñun def une génération de rupture parce que bii ñëw bokkul la jamonoy démb man na ko yow xoolal erreur bi nga def topp sa papa ba mu yóbbu la nga tabaxi kër Touba mënoo cee am kër gi amul benn valeur te mënoo faa dëkk yow yaa ngi jëm léegi mag léegi nga dem retraite mu waaw fooy dem dëkki Touba man Touba mënu ma faa dëkk dafa tàng dafa bari ay yoo amoo liberté lu ci bari mënoo ko loo c'est un mën na ko Touba prison bu ñu kaso kaso à ciel ouvert la ba noppi loo fa am moomoo ko mooy yow ko yow da nga liggéey ba retraité traité wara noppalu war a dund ngay souffrir daat bu metti ko lool sama xarit la murit la Sëriñ Touba rek la gëm nag li ñuy wax jotewul ak gëm-gëmam dara yàqul ci gëm-gëmam dara mais dundam lay toppatoo amul benn sikk sàkk na Sëriñ Touba mooy sëriñam moom la gëm man nangul ko loolam waaye li ñuy wax du waxi Sëriñ Touba du waxi Touba li ñuy wax mooy moom dundam lay toppatoo naka lay dunde naka la mën a gëmee sëñ Tuubaa ba noppi am dund gu sell mën a am liberté am di dama ko dikk dëkk ci dëkk boo xam ne la mu fay def da koy moom ci këyit ak njabootam moom ko mu am valeur toppatoo àdduna am loolu loolu amu ko Tuubaa ko metti bu lool da ngaa jum an sa papa dem na bala fi bàyyi la ay jafe-jafe moom moo la dugaloon ci tabax këru Tuubaa moom parce que xamuñu lu xew sa papa sa papa la mais am na ci loo xam ne yaa ko gën a xam fuuf sa papa mënut a xam jamonoom gën laa xam sa jamono yow yow sa jamono yaa ko gën a xam sa papa am na loo koy nangul ci li mu bëgg waaye am na loo xam ne da ngay lànk ba tëddi naaju ñun ñëpp ñu ci bari kenn ku ci nekk am na loo xam ne sa papa da la koy def loo boo ko defee musiba lay jural sa papa bi bi mu la koy def loo xamul ne musiba la lay jural da la koy def loo ci yéeneem bu rafet moom day njort ne li mu lay def loo lu baax la ci yow moom loolu lay jàpp parce que yéene dong la am doxul ci xam-xam sa papa booba booba wala boog jamonoom lay dund li mu dund moom la lay jéem a dundal intention wu baax la ciy am de yéene bu baax la ciy am sa papa waaye da ciy juum yow yaay xam yow yow yaay muus xam na sa papa ji am na loo mën a jël ci moom am na loo xam ne doo ko jël ci moom parce que sa papa ji am na lu mu xam am lu mu xamul sa papa mënta xam jamonoom mën laa gën a xam moom jamonoom sa papa bëgg laa gën a xam sa jamono yow mënta nekk am na loo xam ne da ngay lànk ba da digg naaj bi loolu mooy li am ay doomu làppato lañ ko ko wax ñu mer mais ay làppato lañu tey mi ngi noonu liggéey na ba léegi mu dem retraite fu mu jëm Touba fa la am kër kër ga matul 40 millions mënu koo jaay këyit wa mu ca am mënu cee këyit wa mu ca am bu ko joxee maire bi jaay gerte caaf ci koñ bi maire bi du ko du ko lebal laxasu gerte caaf ci kër gi du du ko ko ci laxal bu demoon ci maire bi jaay gerte ci koñ bi Touba ne ko laxasu gerte caaf laa bëgg nga lebal ma ko ma tay la la kër gi kër gi maire bi danaan ko soxlawu ma ko maire bi du ko jox laxasu gerte caaf ci tay la ko kër gi day lànk ndax kër gi amul valeur chef de quartier bay daje bind ci mbindum olofal olofal yooyu ci ci ci ci alphabet arabe olofal ko waaw euh, diw euh, kër gi euh, yaay borom kër gi dafa bokk ci loo Touba kër yëpp ay loo lañu loo loo loo loo loo yow mi moom kër gi kër gi ci am loo lay nekk loo kër yëpp loo lañu sant loo Touba dañ ko allotir loo benn loo lu fukki kër wala juróomi kër mën nañoo nekk ci bi genn kër ñoon la yow yaa moom loo 1 bi loo 2 bi yaa <laughs> waaye bis boo waxee lu naqari sëñ bi da ngay takk sa bàyyee fa loo yi lo kër yëpp loo lañ sant ak mbàkki da ngay seetli ñu ne ñu ne ay nit lañu quoi mais ay doomu làppata lañ ay doomu làppata lañ nit dafa am liberté moom boppam waaye liberté gi nag nga jëmale ko ci lu yiw ak lu baax waaye da ngay mel ni par force te ñoom ñu ngi yor seen i kër yu baax yor seen kër yu yor seen titre am na Touba am na ñoo am Touba am na fa kër yoo xam ne ay titre foncier lañ man xam naa ñu fa am kër yoo xam ne ay titre foncier lañ Touba wala ndax yéen mën leen am titre foncier yéen am na ay titre foncier du benn titre foncier de ay titre foncier ñoo fa am Touba du benn rek ay titre foncier te ña fa am titre foncier Mbàkke lañ sant. ñi fa sant Mbàkke am am na ñu fa sant Mbàkke ñu am ay titre foncier maa leen wax li yéen doomu làppato yi taalibe yi yéen yéen a amul titre foncier mais ñoom Mbàkke Mbàkke yi am nañu ñu am këru titre foncier ñoo ko moom ci seen tur la nekk TF boo demee ca conservatoire conservation conservation foncière ba nekk Jurbel da nga fa fekk seen i tur ci seen titre foncier ñoom te Mbàkke lañ sant yéen doomu làppato yi yéen lañ yéen yéen yéen a mën yéen yelloowu leen am titre foncier yéen kenn du ko jox parce que ay ay ay ay doomu làppato ngeen ay jaam ngeen <laughs> loolu ngeen mérité loolu mooy après ñu nax leen ne leen Touba sëñ Touba ko moom benn titre foncier dañ leen nax loolu ay dóor la amut yooyu ay naxaate la benn titre foncier amut Touba ay titre foncier yu baree fa am lu leer laaleen leen di wax dañuy nax de lu leer laa leen wax dem leen ngeen gëstu ko dem leen ngeen gëstu kon xam naa fi laay daanelee tey. li soññu ñëpp rek xam naa manifestation bi est-ce que jeexul waaye li wax na ñëpp jóg taxaw xeex góor jigéen guddi ak bëccëg xeex ko bañ a tàyyi bañ a bàyyi di woo ñëpp di woo ñëpp imaam yu jubi imaam yu dëggu yi waxuma imaamu soos soosaat yi ak ñoom Moustapha Gueye waxuma ñoon imaamu puus karot yi waxuma leen imaam yi may wax mooy imaam yi gëm yàlla imaam yi gëm humanité imaam yi gëm nit imaam yi xam ne nit moom du dara romb ko imaam yi xam ne nit moom mooy li yàlla gën a fonk imaam yooyu lay wax waa jàngu bi ñu ngi leen di woo waa bois sacré bi ñoom ñëpp képp koo xam ne kilifa nga ci réew mi te dëggal sa bopp ca la ngay nekk kilifa waxantu wala kilifa naafeq yi waaye kilifa yu dëgg yi ngi lay woo ci xeex bii nga xam ne moom la ñuy xeex góor jigéen ngir bañ mu law ci réew mi ba njaboot yi tey ak ëllëg di ci yàqu ñu ngi leen di woo ci xeex bi ñëpp jógandoo waxandoo xeexandoo pour lii mën fee jóg ndax li tax xeex bi jafe mooy ki jiite réew mi moo ànd ak góor jigéen ñi moo yor doole ci yor alal ci yor justice bi attekaay yi yor lépp toog ci ba noppi nag ànd ak tubaab yi ñu dugal fi ak ngóor jigéen mu di leen dooleel kooku mooy Macky Sall tànk xeexuñu ko mu jógee fi lu ñu bëgg duñ ko am nañu àndandoo taxaw ñun ñëpp jëlee ko fi lépp lu muy wootee bu ko kenn jox sa xaat képp ku jox sa carte Macky Sall jox nga ko ku dooleel góor jigéen te da nga ko léegi yàlla yomal xiyam amul sax sikk sàkk li may wax ni ku jël sa carte jox ko Benno Bokk Yaakaar bi ànd ak Macky Sall ñoom ñi Benno Bokk Yaakaar góor jigéen ku leen jox seen carte danga nga taxaw ci kanam yàlla yow ma xiyaam lay ko doo jéggi salaat mu ko te layoo loolu da nga yàlla lan moo taxoon nga def loolu ñu leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàcc waaye di leen jox daje ba fan yi incha allah ASP yi moom du ma ci wax ndax ASP yi moom ay tappale rek ASP yi moom ba ñu koy taxawal laa xamoon na ay dóor la tànn nañ ñu ci bëgg a tànn dugal leen ci biir police bi gendarmerie bi ñeneen ñi ñu teg leen fële voilà du ma ci wax ñoom nañu waxal seen bopp ndax ñoom ñoo fi àndoon ak police yi du kon tey bu ñu tollee fii man du ma ci wax sama yónnewu ci nañ leen rey ñoom ñëpp waaw du ñu dugg ci ab xeex lu dul ngeen laal seen intérêt man mii di xeex ñu sama benn intérêt te maa ngi xeex ñoom nag ba may xeex dañ ma doon xeex waaye ba seen intérêt taxawee ñu bëgg ku leen waxal du ma ci wax donc Macky Sall taxawal ànd koog xaali xaali xaali ñaa xaali ñaar yi nga xam ne moo nekk moo njëkk nekk premier directeur général ASP yi agence commune de la xaali ñaar nekkoon fii ma xam ko bu baax a baax ànd ak Boubacar Camara xaali ñaar Boubacar Camara bu jéem ko ñoom ñaar nañu bu baax a baax a baax xam naa leen bu baax a baax a baax ASP yi du ma ci wax lu ma ci xam yëpp du ma ko wax ñoo xam man lu ma fi nekk di xeex su may xeex du ma la gis waaye bu ñu demee ba dara ci sa kaw nga ñëw ne ma naa la naa la xeex la du ma ko def loolu Guy Marius Sagna moom ma ci man moom man na ko man mënuma ko Guy Marius moom buy xeex day xeex boo koy xeex la day xeex boo koy dóor ci xeex yi day xeex boo léegi boo léegi yow mi ko doon dóor buñ lay duma mu ñëw ànd ak di xeex loolu moom jéem a ci man man mënuma loolu sama yoon nekku ci ay ASP ñu lañu xeexal seen bopp ndax ba ñuy xeex fii di xeex gisuñu leen waaw égoïste sénégalais yi égoïste dañuy toog ne non ngay xeex du ñu ñëw de parce que concerné gu leen xeex bi laalagu leen waaye bis bu ñu dalee seen kaw na ñu ñëw taxaw ne kaa jàppale ma waxal ma lii waxal ma lii du ma ko def Sénégalais boo ci jàppale ba mu taxaw mu dem yoonam bàyyi lef koo ci àndal ba mu jekku la ba am li mu bëgg ci yow dalay war taxaw ne le waaw fa bari ay warkat seen bopp lañ nekk nekkuñu ci xeex général nekkuñu ci li amal njëriñ askan seen bopp rek ku ci layam lay mi ñëw wax a wax a wax wax wax bu la jekko dalay jëm paaka dox taxawee Ya ya lebah. Lilin lilin yop, lilin ziat, lilin josen wacu wain. Furtado ni lilin yu, Joseph Mendy, <coughs> Rick sini ki lilin yop ni lilin tasane. Eh. Lilin yop rek bayu bunyi lima jum. Mbay sek mbur ni lilin mur wa ni lilin yu yan yop. jam mbégte ci teew bi ngeen di teew ci waxtaan wi daxin bëpp daxin bëpp yow tu es un vrai daxin bëpp yow yow moom bokkoo ci làppato yow moom jegewoo làppato macha allah Abdou Aziz Dia yéen ñëpp rek Mamadou Seck ñu ngi leen nuyu Ndiaye Seck Mbour waaw dofu kër gi macha allah macha allah xuma teranga yéen ñëpp rek bàyyiwuñu kenn macha allah yal nañu yàlla defal dégg ak topp kattanal ñu may ñu doole may ñu fit bañ ñu bàyyi kenn aar ñu boppam ba kenn du jote ci ñun ba lii ñuy wax di ko yëkkati di ko di ko di ko bëral yàlla may ñu fasaaxa bu ñu koy waxee may ñu euh, xam-xam bu leer bu ñu koy indee ak làmmiñ woo xam ne dana ca génn leer ba nopp bu ko dégg mu mën a dugg ci sa xol dugg ci sa tabia ba mën a fekk tilim tilim yaak ñaaw ñaaw ya nekk ci sa biir yaram yëpp mu futti ko sànni ci àll ba ba bàyyi fa leer ba nga mën a ràññeetle liy bon ak lu baax yàlla nañu yàlla defal loolu ndax suñu noon yi dañoo bari doole suñu noon yi dañoo mën a rayaata suñu noon yi bàyyiwuñu dara suñu noon yi xeewuñu dara ndax iblis la ñuy liggéey seytaane nag boo koy liggéeyee doo seexlu dara ci xeex booy xeex loo yëkkati mën nga koo sànni sam noonu te ñun ñooy seen ñun ñiy xeex seytaane ñooy noonu seytaane te seytaane bi nekk ci réew mi jiitu mooy Macky Sall moom mooy moo fi toogal iblis dajjal ak képp ku ànd ak moom képp ku koy ñaana ak ku koy ñaanal mandat yu bare ku koy naan na naa la ak sëñ Touba bàyyi naa la ak léegi ñoom ñëpp ñoom Macky Sall ànd képp ku dooleel Macky Sall dajjal ngay dal ngay dooleel Macky Sall ku koy ñaanal wala nga di ko dooleel ngay jàppale amul amul dem dikk <clears throat> Abdou Aziz Dia Marshal Demba Ndiaye ah ça c'est le grand patriote Marshal Demba Ndiaye machallah machallah ñi ngi lay suyu bu baax a baax partage yi bind yi commentaire yi machallah machallah machallah Marshal Demba waaw Fouta do yeen ñëpp rek Souley Souley waaw Souley Jambar la momit machallah Souley yeen ñëpp rek machallah yeen yéen kenn ku nekk rek ñu ngi lay topp di xool sa taxawaay constance bi nga am ak dëggu bi nga dëggu ci xeex bi di ko def généreusement utu leen ci siw utu leen ci leen ci xam utu leen ci xaalis utu leen ci dara da ngeen koy def ngir yàlla loolu moo gën àdduna ak li ci biir moo gën àdduna ak li ci biir waaw fina ba pharmacie la yéen ñëpp rek macha allah bàyyi wuñ kenn yéen rek xam leen ne macha allah am nañ ci yéen mbégte lool lool lool lool lool ci boo ko ëtt ndax xam nañ ne li ñuy wax bu amul woon njëriñ du ngeen fi teew kon ñëw gi ngeen ñëw di tee di di taataan ñëw gi ngeen ñëw ci ëtt bi di di taataan dañuy njort rek ne xëy na dafa li ñuy wax dafa am njëriñ moo tax ngeen di taataan si di ñëw di jël si waaye ba mu njëriñ du ngeen fi taxaw kon da ngeen ñuy encouragé da ngeen ñuy gën a ñaax gën ñooy gën ñooy dooleel gën ñuy puus ci ñu gën a yokk li ñuy def di gëstu di xam di indi di taataan di di di di gaaral fii ngeen di taataan kon seen teewaay dañuy gën a jox courage daf ñuy gën a jox ak cawarte ngir ñu man di ñëw saa su ne di wax ci loo xam ne suñu njëriñ ñun ñëpp lay doon njëriñu réew mi kon yàlla nañu yàlla defal jàmm defal ko Sénégal waaye jàmm nag ju ci dëgg jàmm joo xam ne nag day dox ci dëgg dox ci ak njub dox ci jikko yu baax waxuma jàmm naa fekk gi nekk ci réew nga xam ne la wax ne suñu jàmm gi suñu jàmm ji mi amul jàmm amoo ndox amoom njàng te diine ji dara baaxu ji ku ci dee tàbbi safara ay góor jigéen ak i franc-maçon ñoo nekk ci bopp réew mi ah jaxasoog sëriñ si jaxasoog ñu bëree bëri di pousse seeni pion muy dox muy oligarchie bu bon a bon a bon faux billet cocaïne drogue yamba sexe jël àll réew mi yëpp jox ko tubaab bi loolu jam jàmm loolu du jàmm njàng mi jàngiwuñ xale yi kenn jàngiwuñ université yi yëpp c' est une paupérisation éducation amatul ci réew mi njàng moo amatul ci réew mi am pàcc am ku dugg ci opt yéen ñi may déglu ku ci dem hôpital tëdd da xam ne lépp dëgg la yooyu yëpp nekk ci réew mi ñu jàmm am na fi ko wax ñu naan jàmm jàmm lan mooy jàmm jàmm amu fi jàmm amu fi kon ñu ngi leen ñaanal ak dimanche jàmm yéen ñëpp macha allah jërë leen jëf yàlla na leen yàlla sàmm Fama Ndiaye jërëjëf jërëjëf Fama Ndiaye yaay Fama une maman très fière waaw jërëjëf yaay booy jërëjëf jërëjëf yaay booy waaw loolu danañu neex lool suñu gisee suñu moromi yaay am mbégte gi suñuy wax suñu moromi papa yi gis seen bopp gi suñu ci li ñuy wax loolu de yàlla xam na ne bëgg xamoon li muy def si ñun ci suñu xol yi ndax ñun dañuy wax rek te ku yëpp kuy wax da ngay bëgg ku la lu kon suñu amee ñi ñuy déglu ba dégg ndax déglu ak dégg bokkul déglu déglu déglu ku koo mën a jur ba dégg ca moom dëgg goo xam ne mën na laa jëriñ ba nga am ci mbégte loolu de mbégte gu rey lay doon ci ñun te lépp nag jubluwaay bi mooy tabax defar li ñu bokk rek fexe ba li ñu bokk baax li may wax waxuma ko ngir man yow mii li nga ciy bégte béggoo ko ngir yow waaye li ñu bokk rek moo ñu boole moo ñu dagale fii te mooy Sénégal moom dong la ñuy wax guddi ak bëccëg ngir bëgg mu jekk ndax bu jagee ñun ñëpp ñu gis ci suñu bopp bu yàqoo ñun ñëpp a yàqule kon am nañu mbégte bu baax a baax a baax baax ci mbégte gi nga am ci suñuy kàddu yal yàlla sàmm yàlla defal la yiw guddal saw fan defal ko bépp jullit ak bépp senegale boo xam ne li mam réew mi ñor na la ndax ñun réew mi dong lañu am Sénégal dong lañu am Sénégal def ñu ñor dañoo dëkk ci dëkk bi bokk ci dëkk bi bokk ci gétt gi war a naan ci meew mi waaw amuñu lenn lu sut Sénégal amuñu lu gën a kawe Sénégal amuñu lu ñu gën a fonk senegal amut Sénégal moom la ñuy nooyee guddi moom la ñuy nooyee bëccëg moo tax ci Sénégal dong la ñuy wax waxuñu leen loolu nag moo ñu yóbbee lu bari ñu di ko indi di ko teg ci ëtt yi muy naqari ñenn ñi di neex ñenn ñi waaye loolu la yàlla dogal gi moo neex gi lañ yemale wax gi rek moo ci am solo la ki des na kenn ku nekk jël ki jël lu naqari ku jël ko neex jël lu neex loolu moo am solo ba ki rek ñuy am li ñu bëgg bañ a bañante bañ a bàddikante bañ a xasante waaye na waxante dëgg nag waxante dëgg de. te dëgg mooy l' intérêt général mooy li nga xam ne mooy intérêt askanu yëpp wax joo xam ne boo ko waxee ku ko déglu xam ne kii li muy wax pour ñëpp la wala kii li muy jëf pour ñëpp la loolu mooy dëgg nekk sa bopp nekk sa nguur nekk sa sant nekk sa famille nekk sa bopp képp kooku moom na ngeen leen ràññeet la bu baax a baax a baax xam leen amin <clears throat> amin amin amin Fally Fall amin yàlla defal ñu ko ñun ñëpp ñaan yi macha allah ñaan yi macha allah yal na yàlla dégg yal na yàlla dégg te nangu jërë leen jëf jërë leen jëf bu ndaw yaay Cissé Babacar Faye jërë leen jëf yéen ñëpp Talla Diop on est tous euh, ensemble incha allah daañu am ndam te yàggatul jërë leen jëf ba fan yi allah.